والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم mbooloo mi maa ngi dooree tudd yàlla te di ko gërëm te di ñaan yàlla euh, suñu daje bi yàlla boole ko ci daje yi nga xam ne dafa cay sotti tawfiq maye ca hidaaya te sàmm ko li ñu fi wax yépp bi ñu door rek léegi euh, rafet na li ci aju rek ci man moom laa bëgg a wax ne fa mu jógee la dëkk xëy na dëkkul fi mu jëm mais nag ñi ko wax ñépp am nañ mérite parce que jullit su rafetee njort rek wàcc la xanaa ñu ñaan benn ñaan bu doy waar bu imam ali daan ñaan te sëñ na supéer yi daan ko faral di ñaan allahumma ij'alni fawqa ma yazunnuun wala tuaxidni bi ma yaquluun waghfir li ma la yaalamuun yàlla yàlla nag ma def comme yow yaa baax mën nga lu nekk néeg nga lu nekk yàlla ma def ma paase sax fi ñu foog ndax mën nga li ñu foog yàlla naa sax paase te itam li ñuy wax nag bul ma ko jàppee te li ñu xamul nga jégal ma ko rek léegi eh, daairatul xayri wal minnati xam nga ku ko tudd mais xam naa ne du ordinaire parce que xayru ak minnatu daanaka tur la ci turu daawal islamiyya ak risalal islamiyya rassuré leen du ma ci sori ndax loolu rek waxtaanu boppam la al xayru min maani al xayri fi alqurani wa sunna ak luy minnatu ci taabiru alqurani yi loolu conférence su boppam la rek kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas bi yàlla di joxoñ mbooloo mi nangul yonent bi li mu woote nga jël laqad manna allahu ala almuminina id baata fihim rasulan yatlu alayhim ayatihi ila axiriha foofu li ñu jëlee yépp ci yónneeku yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam li mu bare bare yàlla daf ca jukki benn titre muy xayroo mu tuddee ñu ko kuntum xayra ummatin dairatul xayri fa dairatun tantami ila saifatin tantami ila ummati ijabati allati yumtiruha alxayru fi kulli makan fële mu ne yàlla may na jullit ñi minnatu minnatu mooy xéewal léeg-léeg minnatu mooy ñax léeg-léeg waxuma ñax ñax mu ñuy bay noo koo defal lu baax ba di ko ko fàttali soit muy xéewal amul firi alxuraan doy na xéewal na doy na xéewal jikko yi ci juddoo doy na xéewal mais même sax ñax booy ñax nit itam fekk na xéewal a ko jiitu ñaxu yàlla nag du ñaxu euh, ku lay ñax ñax bu lay naqaral loolu daf la koy fàttali ngir nga ngir nga jàpp ci kon nag daayiratul xayri wal minnati ñoo ñu invité pour ñu waxtaan ci daayiratul xayri wal minnati maanaam ci biir cercle l'islam ak ci jógee comme nag ni ñu tëggee euh, unwaanu waxtaan wi dafa ñu imposer benn euh, doxalin ndax dañu nekk islam mariage et développement mu mel ni ñetti axe la yoo xam ne bu ci nekk foog nga mos ci tuuti bu ko defee ñu tëj waxtaan wi ci kaw xam ne ndem mooy waxtaan wu njëkk ñi ngi yaakaar ci yàlla waxtaan yu bari topp ci yii maa koy def yii ñeneen a koy def comme nag l'islam buñ ko buggee présenté bu gaaw mariage muy takk jabar takkante ay ñuy sëy ak malheureusement malheureusement mais mënul ñàkk léeg-léeg passé bu ci nekk dafa lamboo bunt yu bare bare bari ak ruq yu bare bari ak masala yu bare bari yoo xam ne ba nga ci gën a xeet ko mun naa am am na ku dal ci mbooloo mi tax na ba doo xam looy jël ak looy bàyyi waaye nag heureusement kaay wax ci yàlla wanewul ne waxal ñu yàlla yëpp ndax kenn mënu ko kaay wax ci diine tegtalewul ne waxal ñu buntu diine yëpp ndax kenn mënu ko kon nag li fi xaj ci la ñuy wax di yaakaar lu mu tuuti tuuti rek na ku fàtte woon wala mu encouragé ku fàttaliku wala mu xamal ku woon wala mu confirmer ku xamoon wala mu weddi luñ saxaloon te du dëgg wala mu saxal luñ weddi woon te muy dëgg conférence te bu amul dara ci point yooyu te boo mu takkaayuwaat jàngiwaat pour beneen bés sant naa yàlla ndax ci mbooleem jotaay yi yonent bi daan def rawatina bu dee sëy dafa ko daan ubbee sant yàlla na mu ko daan waxee mooy lu ñuy sante lu ñu lu waral sant rek yàllaa ko moom kon nag ñi ngi koy sant di ko dimbandikoo di dellu ci moom di ko jéggalu suñuy bàkkaar moom nag temps bu mu tuddee jéggalu bàkkaar rek xamal na ñoo tax mu yor ndax moom ni nit tëlee naawee loolu la yoon jal Muhammad tëlee defee bàkkaar maafuum la waaye nag bu baloo rek ñun ñoo ko teree nelaw loolu d'ailleurs sax moo tax parenthèse bu gaaw ndaxte du kuuru droit wu kese daawa la daawa boole luy raganloo ak luy yaakaarloo ak luy dolli gëm yàlla loolu wax attee parenthèse bu ndaw bés dañu seetlu ay bejjaaw ci bopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ki ko seetlu ne ko ara shayba asraa ila rasika aw ilayka ya rasulallah mu waay bejjaaw bi de teel na ci sa bopp na bi nag tontu tontu boo xam ne jàngale la ci jublu mu ne ko shayyabat nii huudun wa axawaatuha mu ne ko saaru huud te ci téem ci ci téeméeri saar ak fukk ak ñeent ci alxuraan benn bi saaru huud la tudd du ci def saaru huud nag bi ñu ko seetee moom loolu rek la wax bàyyi ñëw examen bi bi ñu ko seetee nag aaya bañ fa gis mu war a mun a dajaaloo nit te dajaam jotagul mooy aaya bi naan fastaqim kama umirta wa man taaba maaka ne yonent li ma lay sant de mooy kocc rek ci kaw yoon bi wa man taaba maaka ak ñi gëm ànd ak yow nga xam ne yonent moom koccem ci kaw yoon yi du problème mais nag ba mën tàmm maaka moo ko tiital ba mu parce que nit li nekk ci moom ci ay faiblesse ak gunt yu seytaane mën a jaar ak yu waroon a xam te réere ko su fekkee ne bugguñu mu jàdd benn yoon loolu jar na béccam alors mais nag moom dund na ba jógee fii biographe mi nee nañu sikkiñam bi kawar yu tuuti yu weex ci nekk sallallahu alayhi wa mu ne ñi ngi lay baalu ñi ngi lay ñaan nga làq ñu ba bak ay wi jóge ci ñun sax du ñu mënal dara waxantuma ay wi jóge feneen jëf yu ñaaw yu jógee ci ñun ñi ngi lay muslu ci seen conséquence teg ca nag ne ku yàlla jubal fekk nga góor góorlu ci jub kenn du la mën a réeral la ci ku yàlla réeral fekk yaa tànn yoonu réer comme fa la ma azaagu azaaga allahu qulubahu kenn dootu la mun a jubal maanaam du condamnation mais dafay wane ne bokk na ci ñetti xeeti dogal yi nga xam ne benn bi nga xam ne dangay tànn mu dimb dimbalal ci la nga tànn jub ak réer ci la bokk beneen conférence la luy jub ci alquran luy hidaaya ci alquran yonent nag bu jàngaan bu gërëmaan yàlla noonu ba seede ne yàllaay kenn moom moom la yebal daf ñu daan teg ñetti aaya yoo xam ne benn bi mooy yaa ayyuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun muy benn aay bu njëkk ba benn ba mu tekki ne yaa ayyuha annaasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxidatin wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaan fattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kaana alaykum raqiban beneen ba mu yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan sadidan ci siin su wow يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما aay yooyu moom la téere xadis yi tuddee xutbatul xaaja maanaam discours bi nga war a jiital soxla su am farata sooy waaj a wax bala nga ko wax moom nga jiital moo tax mag ñu bëri boole ko ci ay yi ñuy xutbaa sëy parce que sentuñu ko mais nag ñàngum xadis a ci réew mi yonent ko daan xutba mooy xutbatul xaaj yonent sax alayhi salaatu salaam nee na euh, soxla bu ngeen am rek jiital leen ko ci du takk jabar rek mais nag jëlal takk jabar pour li ma ciy waaj a wax ci léegi ci commencement bi aay yooyu rek daf koy wane ndax boo toppee aay yi da nga ciy gis lan gëm yàlla te na ko yonent gisee ragal yàlla te mooy mooy tandiku lu koy merloo ndax taqwa mu mi nga jógee ci wiqaaya bi nga xam ne mooy maam teg dara ba mu bañ a agsi ku la doon dóor ci jaabi nga nga jël sa pakk def ko ni loolu it saqay sa darbata bi tur si loolu kon taxawaa mooy lépp lu lay musal ci lu tax yàlla jéppi la danañ koy firi ci jëpp yam la sant lan ca man bàyyi lam la tere yépp te yàlla tax danga ci gis ci aay yooyu euh, sax maanaam nekk ci lu baax sax ca ndax wala tamutunna illa wa antum muslimuna mooy góorgóoru leen ci fexe ba feeg ba ngeen di dee daal du ngeen jóg ci daayiratul iman ba bu ñuy ngëpp roxo gi fekk jullit nga yonent junj na fi nag lu grave grave grave grave mooy góorgóorlu ba nga xam ne bés bu la wóoree ne dee ñëw na sa xel dal nga ñemee dee te loolu moom la ulama yi wax ne ci la nga dund ca ngay dee la nga dee ca dañ lay dee kii waxin la pour nga bàyyi ko xel wala tamutunna illa wa antum muslimuna mun naa waat jullit ñëpp ci temps yëpp jamono yi nag loolu nag laaj na tarbiya laaj na kër kër yi mais laaj na surtout ndimbal yàlla da nga gis ci aay tawxiid ci aay yëpp yàlla nga ci fàttali tawxiid da ci gis euh, mbokk gi nit ñëpp mbokk ndax ci aay ba mu ngay wax naan ci benn góor ak benn jigéen yéen mbooloo mii yéen ci laa leen jëlee ba ngeen feet tey kaw suuf su eboo Darwin mer mais loolu mooy dëkk nit ñaa ngi jóge ci aadama ak awa moom nee nañu pourtant ci ay golo lañ jóge ci di màgg ba xëy nekk nit ma ne waaye golo ñàkk fayda moom dootul évoluer xanaa golo yu njëkk yi ñoo évoluer ba nekk nit moo tax léegi borom xam-xam yépp homme de science yépp a ngi koy reetaan da nga gis ci aaya yi fuug lu yàlla xam nga bam ne na ngeen ragal yàlla te wax bu ngeen di wax wax lu jaadu wax lu jub wax lu nekk dëgg xaw la sa diidal xam nga ne laaj na waaye wax nga bàyyi xel li tax ngay wax ak ni nga koy wax da gis ci aaya yi jéggale bàkkaar te bàkkaar euh, mooy tënk bi tënk jaam da nga gis ci aay yi li mu tuddee fawzan aziman demal rek boo wéetee nga jël aay yi ci langue bu la neex nga déchiffrer ko li tax yonent tànn ko ci soxla su ne surtout bu ñuy takk jabar da ko ci fekk nga xam ne univers boobu ñuy takkee sëy nga xam ne sëy yàlla dafa ko réer ba buumu maanaa la nga xam ne doo ko gis mais yàlla daf ko def mu figuré tuddee ko miis miisaaxan xaliisan nee na yow góor waxtu woo demee ba bugg a bàyyi jigéen da nga demoon ba promettre takk ba maye dara mu jigi nga dem feneen la nga joxe bu ko jëli maanaam boo takkoon la wax bay fase la nga joxe woon bu ca nangu dara ndaxte yegg ngeen fu xóot yéen ñaar ba ndaw si jëloon na ci yow kóllëre goo xam ne nit di suré yooyu ñu takkee bato yi noonu la rëy li tax nag yàlla yonent ma ne tànn aaya yu sérieux yooyu aaya yëpp a sérieux lamb ko maanaa yooyu di liir ci làmmiñam wu barke woowu ci fasaam googu ci jotaayam yu am fulla yooyu ñu xam ne amul benn yooyu fa ñu tekkee nga xam ne kon sëy bu rëy moo tax ñun suñu diine ñàkk a takk jabar ngir yàlla gërëm la bokk ci yonent nee na laa raxbaaniyata fi lislaam ndax bu ñu ko waxutoon demoon nañ ci jamono yonent bi ñu xamalee ni yàlla fooree ak lam amee nam réyee ak ni àddina mën a naxee ni amoon na ci ñun soñu foogoon ne waruñ takk jabar benn bés ñetti nit ñëw ci bi alayhi salaatu salaam dal di jaar fële ci pegg ba fexe ba interroger waa kër ga ne leen ñun de dañu ñëwoon pour xool sang bi naka lay jaamoo yàlla ñu gis ne dem tusubaar takkusaan timis gee ay laaf ay rakk ci guddi ak nelaw xam nga li yonent ci jaamoo yàlla li liñ ci mun a gis ñu ci mun a gis a ko ëpp ndax roxo bi du débranché vingt quatre heures sur vingt quatre su débranché rek at la tukki euh, bañ leen waxee ni yonent ci jaamoo yàlla ñu ne ah loolu sax ñun du suñu affaire yonent yonent la kenn ki ne man de man ak lu mën di xew dinaa dund ba dee te du ma takk jabar moo tax may wax keneen ki ne man de décidé naa dootuma nelaw guddi mukk suñu nit ñi ne ñu ngay tëdd rek may naaj bi la bañ nootu kenn ki man de dootuma dog koor mu bis bu set ma koy or yonent nag dégg ñuy murmur yi mu génn leen waaye yéen yéen a dégg yéen a wax li ma dégg dina ko ay ñun de dañu gis ne ñun duñ yow mooy la man de maa leen gën a xam yàlla maa ko gën a ragal ko waat doo leen gën a xam yàlla maa leen ko gën a ragal waaye nag damay or ci or maanaam damay or gàtt nga léeg-léeg ma ñàkk or damay julli guddi ci nelaw maanaam damay julli ba mu yàgg ma nelaw te itam damay takk ay jabar wa tazawwaju nisaa ko sax kenn mu ne loolu mooy sama sunna kat moom la yàlla rëddal moom laa rëddal wa man raxiba an sunnati fa laysa minni te nag man raxiba an pour arabisant yi boo ko teg man raxiba fii ndax raxiba fii mooy xemem na mbir ma raxiba an hu mooy def ko sib soxlawu ko mu ne sama sunna na ku ko sib rek bokkuloo ci sama mbooloo kon takk jabar ci la bokk mais takk jabar jan ak takkee jabar nan ak takkee jabar fan ak takk jabar pour lan xam nga takk jabar neex naa wax léegi li ñuy njëkk a wax mooy ngeen baal ma parce que responsabilité bu dajee ndég balu baax la ndax ndég mi mooy mbooloo mi teg sa ne ñëpp yëpp yi jënd te moom xadiya aadila boo xam ne cause bu bu mel nam des na nag xam ne itam cause dana mel nam war a mel ci tribunal bi avocat ba itam mel nam war a mel itam yëpp dafay xalaat moo tax may déglu waaye lu ci manqué rek na ngeen xam ne xarit yi ak yeneen a tax wante li ñuy waxtaanee moom vraiment lu lu euh, l'islam ngeen wax l'islam mbooloo mi daanaka kenn dinañ ko jàngal bu la neexee ndax xale yu ndaw yi sax ñi ngi ciy góorgóorlu góor ñi di sàkku istirshad ñu naan leen mustarshidoo la parce que ay góor lañ jigéen ñi sàkku istirshad ñu naan leen mustarshida parce que ay jigéen lañ ku ne di sàkku ku la jubal foo julit bu nekk war nga nekk mustarshid wala mustarshida waxuma entre guillemets mais nga doon koo xam ne kii yaa ngi ut rachadu yaa ngi ut njub yaa ngi xam wax ak jëf nañ koy defee kon nag lislaam boobu jàpp wax ni jar na wax ndaxte bu doon ñun kenn fi nekk ci àddina lu ñu neex ñu góor góoru ci suñ biir mais nag ñi ngi wax suñ bopp di wax suñ njaboot ñeneen di leen wax ci ay journaux ci ay revue ci ay rajo ci ay téere yu mag ak yu ndaw ay film ak ay rencontre fii ak bitim réew li ngay tabax yépp am na ñoo xam ne seen mooy màbb ko tax na ba nag bul tiit bul am complexe waaye dem bul naagu léegi kon nag l'islam pour ñun mooy diine bii nga xam ne bi diine yi wàcc diine yi wàcc ba mu xëy wàcc yàlla dafa ca denc loo xam ne jaratul beneen di wàcc moo tax mu ne matal naa ko tànn naa ko mooy seen bos al islaamu nag jarul njàng mu gudd pour xam ne mi ngi jógee ci aslama yuslimu islaaman nga xam ne sorewul ak istaslama mooy jébbalu na jébbalu baatab jébbalu mooy julli mais nag yàlla ngay jébbalu soo jébbaloo yàlla nag da ngay jéem a xam lam bëgg nga xéet ca lool mais yonent mi xam yàlla xam ni moom dafa dafa tàggale jëf ndigal yi ak bàyyi tere yi daf ko tàggale jëf ndigal yi dafa ne ida amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastataatu su ma leen digalee dara lu ngeen war a def def leen ca la ngeen mën ulama yi ne parce lu baax du jeex moo tax mu ne wa ida nahitukum an shay'in fajtanibuhu su ma leen teree dara nag moom bàyyi leen nga neex na limonade kenn aayoo ko buñ ne naan limonade rek nga ne su bu dee ci dëkk bi du musiba waaye bu ne leneen li me ni li mu leneen li mel ni tënk li baanoo bu bu moom bàyyi lépp rek benn guux ak tax na ba dinañ ñu taarif lu jarta taarif mooy lislaam boobu nga xam ne di ko yonent indee xëy yi nangu nañ téere yi nangu nañ jullit ñi nangu nañ même ñi maadu te duñ jullit bi ko gëstoo nangu nañ ne ay na éwén lii mooy dëgg ndax nit koo xam ne mosoo dal jàng mënoo bind sa tur yàlla indi la xam-xam yoo xam ne ña ko fekkee lottal na leen di leen lottal ba léegi ba incha allahu di ci barab la jege xëy na balaa fee mat at ay boroom xam-xam discipline yu bari surtout médecine daje foofa nga xam ne bu la neexee nga yegg fa di la wax alquran ak sunna ak science yooyu kimtaan yi ci feeñ léegi am na ci koo xam ne professeur boo xam ne japon la dëkk maa ko gis ba mu gëstoo naka la yàlla dencee tokkan ci biiru jigéen ba mu xëy ci xale buy jooy ba mu ko liiree liir li ci alquran wax rek dafa daanu ci jóg ne ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan nga xam ne du dof xale bi door a jàng du ko door a xam équation yu bees ci ci wax loo xamul mais professeur bu amee cheru médecine da ci tukki yoo gi mu xam mënu doon tudd sax baati laa ilaaha illallah ya kon nag l'islam boobu ñun moom la ñu wax alquran ak sunna moom mi ngi nii roman bu nekk ko gën a cher léegi sax soo yaa ngi ko fab di mool di may rek amatul amatul sax jënd presque ku jënd rek yaa xamul mais am na boo fa jaaree am kaamil doo fay dara sunna nag moom dafa yaatu ndaxte mooy dund yonent bi yëpp mais nag gox bu ne alhamdulilah am na fa ñu ca xam dara ñu ko mën a wax rawatina Sénégal yi nga xam ne moom sëriñ ñëpp dañuy jaay moom muy maye. Sénégal gii nga xam ne moom sëriñu daara nga xam ne ñëpp dañuy jaay moom muy maye ndax moom du fonctionnaire kenn kenn du ko fay dara xanaa sarax waaye lam xam moom ku bugg mu jox foo toll laajal boo xamul kat doo am laaj li ma koy wax nag moom Serigne fekkee ne Njaay la sant mooy rikk bés buñ la laajee loo xamul amal fayda ju toll yi ne xaw ma ko rek sunna nag moom moo jafe ndax sunna moom daf ci am yu wér ak yu wérul ndax nag boo dégg ñu naan Bukhari Muslim Ibnu Maaja euh, Turmuzi Imam Malik Ahmadu yëpp moo di dañu segg yu wér ya dajale ko foofa tax na ba su ma ne diine wóor na ma ne waa daara yépp xam nañ li may wax mais wóor na ma ne am na ñu jàngee ci yeneen daara ci yeneen discipline bu ñu déglu woon seen référence yi rek duñ dégg maanaaw diine maa ngi ko xamee fan dama doon gëstu ci la grande encyclopédie bi tubaab yi defar pour science art ak littérature boo demee ci tomu ñaar fukk ak juróom-ñett ba ca page ñaar téeméer ak nangam ba ci ñaar téeméer ak nangam dañu doon définir lan mooy religion kéemtaan la ngay compte lu mu téeméeri définition diine mooy nangam diine mooy nangam ba yàgg ñu tànn ca ñaar ñu ne mooy définition scientifique déglu leen kéemtaan xaw ma gàcce waaye ne par religion on entend la façon dont l'homme réalise ses rapports avec les puissances surhumaines et mystérieuses dont il croit dépendre. C'est original. C'est vrai que nous n'y beneen ba la religion embarrasse tout le savoir tout le pouvoir non scientifique xam nga bu xale yaroon ci loolu wala ab chercheur bu fekkee ne nëbbuwu la temps bu ñu ne l'islam rek dafay maslaa yow foog ne ci lépp lañ nekk mais bu dara lu may nag science ak analyse ak lu loo xam ne moom la ñuy wax objectivité lii la tax a jóge ngi nii dañuy fay jógee dem uti ko feneen fekk du noonu jullit ñi niñ jàppee l'islam moom te da nga ko léegi même ci affaire séeg yi bi ñuy wax mooy l'islam mënul wuute ak science ba muy wax naan force non scientifique l'islam jéemu ñooral jéemu ñoowut comme ni mu ko waxee jullit dul ne dafay jéem ko rapport ak ay force surhumaine eh, puissance surhumaine mbooloo boo xam ne du ma doole joo xam ne dafa dépassé ni sa nekk lu mystérieux lu kenn xamul nu mel déedéet l'islam li ñu gëm ma gàttal ko pour xale yi bala maa commencé zawaaj moo di ne benn borom lañ gëm mooy yàlla gisaguñ fi nag kenn ku prétendre ne yaay moom lu mooy moom moo bind univers bi moo wàcce alxuraan univers bi ci la homme de science yi di xool montagne yeeg ngelaw yeeg garab yi ba génne ay loi wooy mu nekk science alxuraan mooy waxam ñu ne nag bay sax yàlla mais nit ku am sens rek su waxoon dara bind dara maanaam bu defoon dara bind dara nga boole jëppam ak bindam mënul am contradiction sakantumaa yàlla kon nag da ngay jàng science kese xamoo l'islam sikkal ko wala nga jàng l'islam mu kese xamoo science sikkal ko mais science pure l'islam pure mënuñu daje mukk lu mooy daje bañ war a daje comme nit ku am xel jëfam ak waxam ni muy daje kon nag l'islam bu noonu l'islam boobu nag yonent moo nañu jàngale boo ko dajalee mun nga ci tënk lii may wax ne société humaine mënuñu sax fi di yokk organisé ci lu dul mariage loolu mënul am mariage moom ni mu amee ci yeneen yi surtout ci nit même bi may noté léegi sax mariage am na diggante xaliba ak encre ak këyit mu jur xam-xam wala mu jur not mënul ñàkk dara du am sa mariage amul waaye nag mariage yu nit moom yonent dafa bëgg mu nag mariage bu dëppoo mission wu nit ak maqaamam yàlla moo na wala qad karramna bani aadama maa fonk doomu aadama maa ko teral teraanga jooju nag lislaam boo ko seetoon lim tëral yëpp bu fekkee ne wér na rek ne lislaam ko tëral da nga ci fekk luy teral doomu aadama lépp lu toroxal doomu aadama rek bu ñu ko askane lislaam gëstul da nga fekk lislaam def ko ndax yàlla bi muy bind nit daf ko bind du ko du caagee nag dafa soxla nit mais dafa xam ne nit a ko soxla mu indil ko lu ko yërmaane moo tax alquran yonent bi ne woon fi ñu ne ko ma arsalnaaka illa bëgg yërëm nit yépp nag bindee fi moo tax ma yebal moo tax yonent bi ne kon nag ñun julli ñi mën nañu tazawaju takaasaru fa inni mukaasirun bikumul umama yawmal qiyaama day leen marié fexe leen ba bëri ci kaw suuf ndax dama leen di tiitaroo keroog bés ci kanam mboolem nation ñu ne nag ulama yi ne na ku nekk fexe ba groupe bi ñu ci tiitaroo bul nekk benn foo élément ci seen biir mel ni ci nga bokk te fekk amoo solo parce que wax na feneen ne al muminu qawiyu xayrun wa habdullahi min al mumini daif waaye nag wa fi kullin xayrun dana jullit bu dëgër bu am efficacité bu mën dara moo gën te moo gënal yàlla jullit bu ñàkk fayda doole mu ne waaye nag comme jullit la rek ba tey itam jàmm ñaari catégorie la léegi ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam est-ce que ku li ñu war a njëkk xàmme ci sëy mooy dafa am jigéen joo xam ne mën nga ko denc ak jigéen joo xam ne mënoo ko denc bu ko defee suñ xale yi bu ñuy door a màgg rek ñu teel leen a xamal maxaar yi nga xam ne mënoo faa mënoo faa fiancé mënoo faa takk parce que léeg-léeg liñ nekk nekk réew jullit man suma dund bi gisagum naa ci benn catastrophe ñaari xale yoo xam ne seen waajur yi jullit pur ñu fas leen a jàngal ñu daje buggante labatante bañ maye leen bañ ne bismillah rahmaan rahim rek ñu door a seetlu ne nekk ci ay ay mahram ay mahramante lañ mun ñu dencante seetal seen xol ya naka la war a brisé ñu tàggale leen kon nag li ngay njëkk a xam ne ci sëy mooy fexeel ba waxtu woo buggee takk jabar laajal kii lu ma bokk ak moom ak kii fu mu jógee aleykum salaam wa kooku ci bunt yi ma doon wax ci sëy ne boo ci duggoon dina jeexal waxtaan bi ñan ñooy maxaarim yi ñi nga xam ne xaraam nañ la ba faaw ak ñi nga xam ne xaraam nañ la pour un moment xam nga jigéen juy jël edda xaraam na pour nga labat hmm? waaye nag bu edda ji jeexee amatu ak mboolem xeet yooyu yàlla ak ju jigéen joo xam ne jabar ji nga denc ko jur te xas nga denc jabar ji ainsi de suite ñu fexe ba xàmme ko kooku détaillam xajul tey ci conférence bi mais première question importante mooy boo bëggee takk jabar kii lu ma bokk ak moom ndax kii war naa ko takkam de nga door a seet nag fam ne parce que yonent bi bàyyiwuñu ak la koy nen dafa ne benn xadis boo xam ne mënoon nañ ko commencé waxtaan wi wax na ne tunkaxul maratu li arbain jigéen nee na ñaare buñ koy denc rek cause yi xëcc góor gi ba muy labat ba muy demandé loxoom ñeent la benn la ci ñeent benn alal ju bari ju ndaw si am la waaja xemem ca wala taar bu nekk ci moom la waaja xemem ko wala askan wu rëy la ak famille bu ngand waaja xemem ko wala yiw gu mu yiw ci yar bu ko diine yar moom la yonent nag ba mu limee yooyu daf ci teg ne fas bi zaati diini taribat yadaaka nee na booy tànn nag la la dugal ci ndaw sa bu mu doon taar ba rek bu mu doon alal ja rek bu mu doon askan wa rek na doon diine ji nga gis ci moom nee na nag attention mooy te ndikul mëq doom te ribal ya daal mën nga ko firee bëri waaye mëq doom ci la bokk bu fexe ba daanu say loxoy sax maanaam bu la ci taar ba kese dugalee wax na ci beneen xadis ne fa asa jamaluhunna na yutghiyahunna nee na bu dee taar dong la ci dugal ci jigéen ja léeg-léeg taar ba mujj bewloo bala la ca neexoon mujj naqari la ca amul ku ne mus ngaa gis yu mel noonu nee na bu la ci alal ji dugalee mën na am alal ca pewloo ko fa asa amwaaluhunna an tusxiyahunna nee na su fekkee ne askan wa itam noonu parce que mun naa la wax léegi ci ay dëkku arab yoo xam ne benn waay bu jógee foofa barki de moo jaay nee ma dëkk sàngam daanaka moom jigéen mënatu faa sëy parce que bala nga wax rek nga wax si ma ne ku tax mu ne alal ju bari ja jigéen soxlaal su góor dara presque ma ne ko déet waaye mu ne ma maa ci marché sàngam marché xam nga ne nit mun naa laalante nit doo ko ndaw si wañeeku rek poñe waa ji rek ñëpp jàpp ci rek yërëm ko rek waa ji ne muut moom rek nee na ba ko ndaw si yërëm ba bàyyi ko rek waa ji nee na yemul ci waa ko dem dafa daw ba sinatuñ ko kon nag bu ne diine nag diine daf koy jàngal la moom ak la ndaw ak ak la waaje moom lu ñu war a wax ak lu ñu war a wax lu war a def ak lu ñu war mu ne fa fa bisaati diini sëriñ ba daaka mais nag defe naa ne jarul wax ne l'islam waxul ne bu ndaw sa rafet waxul ne bu mu am alal waxul ne bu mu am askan mais dafa ne bu mu nekk cause principale nga di ko takk parce que bu diine ji jiitoo yëpp baax su diine ji manqué xëy na lala ci naxari ñàkk diine jaa koy indi fekk na ndaw soo xam ne xaw ma ci moom lu mooy fulla moo ci waajuram yàlla ko nattoo jëkkër ju ko doon la jël ba xëy tàggoog moom muy nettali nag seen fan yu métti yooyu ma dégg ko mu ne euh, mu mandi benn bés ma ne ko ah tamit ma ne ko dafa daan naan pourtant mais man sax naan bi man naqari ma mais li ma daan def ma naqari ma ne ko ma ne ko ma ne ko ma ne ko ma ne ko ma ne ko jarbaat ma ne ko dara li nga doon tawat yëpp naan gee ko indi waaw li nga doon tawat yëpp naan ngee ko indi su naanu toon rek bu naanu toon dina la sakkanalal force am puissance am sakkanalal la xaalisam sakkanalal la wërsëgam sakkanal la temps am sakkanal la diineem mais naan ngee yàq yëpp boo taxee koo mu door mel ni ku doon ku doon nelaw door yeew kon nag yonent wax na choix bi fuñ koy porté nit ku am jikko diine buñ koy wax ku am jikko mënoon nga fi gis waajoo xam ne dafay fanaana naafile ba bët set mais bala nga koo tudd bala nga daane mu saaga la yonent nee na kooku taxul mu yoon nga xam ne ndaw si ñëpp doon tawat moo fi dax julli moo fi dàq def lu baax mais nag ku ko jege rek mu saaga la yonent ne kon ñëpp ko gën safara la kon nag taabirul islam bu ci nekk rek dafa am contexte boo koy dugal ko am diine koo xam ne am na conséquence diggante diineem ak ak ak conduite kon nag ñu ne boo ko tànnee am na point boo xam ne ci problème yi nga xam ne moo posé tey la bokk fiançaay dama ci yàgg nag waaye fiançaay am na problème ndaxte fiançaay am na nu ko yonentu rëddee am na nu ko modernité rëddee tey ni yonent waxay dëgg ni murit ni te wax du dëgg te duñ ci werante lu bari parce que ku ne gis nga conséquence yi yonent nee na alayhi salaatu wasalaam ku bugg a takk jigéen fexeel ba xool ko xool bu jaaru boo xam ne xëy na nga gis ci moom lu la sawarloo ci nga takk ko jàppal boobu yow ñaari at benn bi mooy lislaam a ngi aaye dem di xool jigéenu jàmbur xoolu bànneex aaye na ko rawatina ci société boo xam ne dafa amoon xijaab ak libaas shar'i mu ne waaye nag soog soo ko bëggee takk ndax takk sérieux na kon mooy atte ñaareel bi kon nag takk jabar bar na sérieux boo xam ne tax na sax ñu may la lu ñu la tere woon te limaamu limaamu suyuti bi muy wax parenthèse lay ubbi bi muy wax jubal sàppe ci julli ni amee solo boole na ci ne xoolal jéggi ay sàppe pour dem ci beneen sàppe ni ñu ko teree yépp kat boo séenee sàppe bu feesul may nañ la nga def lañ la tere woon mu ne nag principe ba ngoog lépp lu tax ñu may la lañ nga tere woon rek xamal ne lu rëy a kon nag mu ne demal ba xool ko xëy na nga gis ci moom ca xool ga lu tax nga takk ko mu ne nag ulama yi ne nag ñaare foofu boo xoolaan kanam ngay gis ak loxo ñu ne doy na fuqaaw yi ne parce que boo xoolee kanam ga ñu ne mooy mujtamaul jamaal fa la taar ya daje yooyu boo xoolee loxo ya di nga xam ndax ñu ne ku fees la mbaa ku feesul foofu nag mujtamaul arab yi ak gànnaar am na ci cër parce que gànnaar gi xam nga am nañ expression wax ñun amuñ ko léeg-léeg ñu ne au lieu ne ndaw sa ku rafet la duñ ko wax dañ naan ko am yaram la comme ci grec antique ak égypte bu njëkk bu ñu waxaan lii de pitax mu ñuul la maanaam ndaw su rafet la woon te dafa ñuul ndax boobu ñuul ñaata bari kon nag euh, nga xool ko xool boobu nag fu xaw yi dem nañ ci ak xadis yi sori sori mais yépp liñ ci xamee mooy daal nit warul dugg ci lu réy li sëy te vraiment xamoon ndax ki ngay bugg a labat war nga mun a nekk moom de mais nekk googu nag ci la modernité ak l'islam wuute l'islam dafa ne laajal koo wóolu ku ko xam mu wax la ci lu mu xam ci ay jikko yow nag xool ko ba xam nu mel ci yow léegi nag am na société yoo xam ne du ma ko tudd dem nañ ci nëpp jigéen nëpp bu ëpp comme ni ni ñu bari génnee jigéen génne bu ëpp mais nëpp nañ ko ñoom nëpp bu ëpp ba nga xam ne benn chauffeur bu ñuul ci dëkk booba nee na man takk naa suma jabar ba ñu jébbal ma ko ba mu dugg ci suñu salle de ba génn ma door ko gis ma ne ko waaw mbaa jàmm ba nga ko gisee mu ne ma yàlla na yàlla musal ci loolu ah ma ne ko amiin ma ne ko waaw mu ne ma ma fekk rek mu ne ma ma fekk rek ki gën a dëddu àddina ci jullit ñi mun a nekk ak ndaw soosu mu ma ak a ñaaw. alors ma ne ko noo def mu ne ñu tàggoo mu ne ma teel li ma dajale woon yëpp ci at yi ci laa ko def waaye nag loolu mun naa koo muñ su fekkee yàlla musal na ma ci nekk ak moom ci benn fois xëy na sa loolu réaction mu njëkk rek la ndax mën naa ndaw si am na yeneen qualité waaye loolu la yónni doon bañ nag ba am na sax saaba yi koo xam ne bañ koy balee ca ndaw sax pour mu seet ko mi gi ci téere bi mu ma maraam moom sax yëkkati na tuuti Euh, mal fa ba ba gis tànku ndaw sa moom c'était un peu osé mais def na ko waaye daal takk na ko nekk na jabar alhamdulilah ñuy bañ nag li modernité indi pour xam ndaw si nag dafa jaru nga jël sa doom jébbal ko ku koy fiancé booyal ko muy dem koo xamul fan la parce que toujours nga gis fiançaay boo xam ne loolu ko yàq sa ndaw sa du ko xam yomb gi mu yomb ci génn ak waaja ci ko waaja suuree ci fiançaay jàng nañ atte yëpp tënk ko gis ne dernière analyse mooy fiançaay mooy maanaam labat jabar du takk jabar mais rek da nga koo dig ne di ko takk tax na ba soo gisee ne sa intérêt laajatul continuer xaraamut mun ngaa bàyyi moom itam mun naa bàyyi des na nag la ko mayoon kooku itam beneen buntu waxtaan la parce que ay ay buntu droit yu jaxasoo la ko mayoon bu fekkee ne téere la bu fa nekk dara jógu ca mun na la koo delloo su fekkee nag da nga ko mayoon mu dem di ca ñawlu ca tayaram di seen tubé su noos ba nga ne ko fab naa bàyyi tailleur ba di ko fayeeku du la joxaat dara bunt yu bëri nag takk jabar gis nañ ne ci problème yi posé te l'islam résoudre na ko moom mooy sonnal gi ñuy sonnal góor gi bëgg jabar société yu bari tey ci jullit ñi ba nga xam ne ñu bari dinañ bëgg a takk jabar dootuñ ko ñemee parce que attanuñ la ñuy def di door leen a may attanuñ la ñuy def bu ñu leen mayee attanuñu rythme bi bi ñu war a téye ndaw si ci société boo xam ne bis bu set comme Sénégal ñu créé la buntu dépense bu bees boo xam ne bu paree doo xam bu mu dugg ñu bëri nag nangootuñoo takk jabar yonent nag loolu doon bañ mu wax benn xadis ne ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu illa tafaalu takun fitnatun fi l ardi wa fasadun ma bëggoon xadis boobu ñu bind ko ci buntu kër gune ci Sénégal ak moo yonent nee na yow bàyyi wala yow kilifa ndaw si yow mi sañ a maye ku ñëw ci yow nuyoo sa kër pour bugg jabar nga seet ko gis ne am na jikkoo te itam ko am diine la sa diine jak ko ja doy na la xëy na am am ba melul noonu itam nee na fa zawijuhu may leen ko mu ne wa illa tafalu bu ngeen defut yombal googu ma wax di ngeen dem ba tëkkun fitnatun fil ardi fasadun kabir di ngeen dem ba adduna bi kenn dootu ko mën a vivre xoolal rek rek xoolal rek mu mu ne bu ngeen ko defut yonent ci ci ci ci ci an anam ak sëy ak famille toujours lu garaaw li daf lu ko wax balaa ñëw nee par exemple euh, bul takk jabar dem bàjj na mu nekk wujjam de wala xaalatoom nee na kooku boo ko defee rek musiba am te tamit rek yàq nga nga yàq famille ba te gis nañ koy itam kon nag léegi ki nga tànn buñ la ko yomba yombalalee yonent dig na la loo xam ne du dañ mukk ci nee na jigéen ñëpp jigéen ci ci ëpp barke ci tëy ci bëtu yàlla ak moom mooy jigéen ci ci gën a yomb affaire bañ koy ma di ko jàngal benn waaye mu ne waaw bul sori ci saraab yi ndax gis naa céet goo xam ne wër naa ci dëkk bañ ko doon séetalee xaw ma gan kër lañ doon séetalee kër gu nekk céet la woon mais amul trois mois sëy ba tas ma ne ko mënoon naa fu mu sax du tas waaye daal li yoon tere moom moom bàyyi rek ci kon nag tànn jabar ñu simplifier ko nga gaaw koo takk te doo ànd ak moom ci caaxaan après ñu yombalal la ko dina indi woon barke barke nag mënuñ ko firi ndax ci lu nekk la nekk mais daal li wér mooy lu barke dugg rek ñu xam ko lu mu génn rek ñu xam ko barke lu mu dugg rek ñu xam ko lu génn ñu xam kon nag bu fekkee ne takk am na war na am rëq-rëq yoo xam ne war nañ koo dindi fi ne ci mariage mooy état yi dañoo gudd lool ci suñu réew état bu yuus état ñu yónnee may bu njëkk état bu tasaare tasaare gu état bu gis yi état bu wër bu yóbbu wali état bu jébbale état bu waaj pour ngeen pour pour pour mu sëy eh, eh, ngeen door a ñëw pour doublaat yooyu yëpp état yi dafa bari li doon cosaan ci lislaam mooy boo déggee ñu ne maye nañ ko kat mooy maanaam jébbale nañ ko buñ ne rek zawajtuka mu ne xabiltu ci jàkka ji bu la neexee léegi waa ji dugg li ñuy wax jébbal ñun am yonent noonu la daan def soxnaan yi noonu la mayee doomam waaye nag jafeel gi indi na problème yoo xam ne tam kenn du ko nekk ngeen Sénégalais wala une Sénégalais ndax ñun ñëpp a ñu xam ne kon li muy li doon am njëriñ mooy jéem a dellu am courage dellu ci faat maanaam yombal takkin bi parce que am na ku ne ma man sociologue laa teg ca waaja waajaay wax teg itam mu ne nekk économiste mu ne ma gis naa ne mboolem liy sonal jëkkër yi ci cérémonie mariage yëpp dara du ci njëriñu ndaw sax dara du ci njëriñu jëkkër yi jar naa seet nag bu ko defee boo takkee jabar ji am na ay problème mooy nekkin bi parce que am na jigéen ñoo xam ne ni ñu war a nekkee seen jëkkër yëpp ña nga ca la seen jëkkër war nekk ñoom ña nga ca mais nag kooku kaaw ñu tuddee am na ci Sénégal femmes yoo xam ne heureusement ni su ma turandoo daan wax Cheikh Ibrahim mu ne mu ne mu ne mu yi Sénégal am nañ am nañ chance am nañ am nañ am nañ xasu ndaxte jigéen ñu bëri jànguñ ndax bis bu set nga gis ci kër tey boo yoon tas na ko te ndaw sa xamu ko parce que jigéen am na yoo xam ne boo ko ko gàddulee rek yoon tënku na ko waxtu woo ko gàdduwul rek yoon tinki na ko su ko neexee mu dem yoonam jigéen am na yoo ko ameel yow jëkkër ji mais nag ci niveau bu normal mooy dundam mooy kotaayam mooy dëkkuwaayam mooy dignitéem yonent nee na jigéen bul laa tuqabbih mooy bu ko wax mukk wax ju ñaaw joo xam ne ku ko dégg ne ko te booy dóor bul laal mukk kanam nga ndax dóoru lislaam du dóoru soxor dóoru rab daf koy daf koy rappelé alors li mag ñi wax naan am na nuñ koy formuler dama ko rus a wax ko am nuñ koy formuler bu ko defee yooyu su manqué ak su fekkee ne benn jigéen la ci kër gi waruloo koo négliger yonent tey wax rek waruloo koo négliger jamono ju yàgg te doo dem ci néegam ak lalam bu dee ñaar lañ baalu ko ku ne am nga bés yoo ko war a tëdd tam yem am na nag fu ñu de mais foofu bokkul foofu mooy boo takkee jabar be yii yëpp ay xadis bi mooy wax ci boo takkee jabar bee yonent nee na alayhi salaatu wasalaam bu fekkee ne jigéen ji musta marié la xale la bés boo ko takkee pour pour moom mooy bés bu ñu la ko jëbalee na nga fa toog juróom-ñaari fan yoo xam ne boo amee feneen foroon moom it fa def juróom-ñaari fan nee na bu dee nag ku ma sa sëy na fa toog ñetti fan door a dem feneen waaye nag waxuñ nga topp ren ba déwén loolu dafay indi histoire wala boobu nga war fa am juróom-ñaari fan nga am fa ñetti fan rek ci lay-lay yu kenn xamul juróom-ñaari fan moo ko moom te boo seetoon nga xam ne sharia moo xóot fu muy xool parce que juróom-ñaari fan ñooñu yàlla mun na ci atti lu ko ne nekkin bi nga xam ne moom la jigéen ak jëkkër di nekk boo gisee problème yu bari am na lu lu lislaam rëdd dañu ko négligé moo di ñu bari dañ foog ne seen jabar daf leen war a taarlul mais ñoom lu leen nekk ñu sol buñ duggee seen kër fekk ndaw sànq ci ay yéreem fekk ndaw sànq ci ay cuuraayam waa ji moom nekk ci ay suwet maaki ay ay blouson yu kenn xamul bu ko defee bu xoolee ndaw si kontaan ne bu ko ndaw si xoolee am na lu nekk ci moom loolu waxuma ko def naa ko wax benn bés benn bés benn jigéen bu am faraaxa bu am franchise daf ñëw ci yonent bi ne ko man de suma jëkkër jikkoo bu defee lu métti sax na ma sax ba dama sama loxo mais naqari wu ma mais moom te itam daal bëgguma dellu jigéen ba xam nga na ne ko ndax mun nga koo delloo lam la joxoon kooku dama avancé bu gaaw mais ci ku la waroon yow waaye dafa am dafa am lien ak lii xam nga xadis yonent bi pour xale yi jàng xadis da nga gis benn xadis nga fekk ko ci nangami bunt yu bokkul parce que niñ koy jëriñoo ci bunt bi bokkut ak niñ koy jëriñoo ci bunt ba léegi da nga bii maa ngi ko bëgg a jëriñoo ci maanaam euh, góor gi nu mu war a fonkee boppam pour jabar ji alors yonent yonent ni laaj ko détails yi ndaw si ne ko man daal dama yëkkati suma bergende maanaam bu doon ci ñun dama ubbi suma fenêtre séen ko ci mbooloo muy ñëw mu gën caa ñuul gën caa gàtt gën caa ñaaw ba nga xam ne daal vraiment dara jaraluma ñu ne kii mooy suma jëkkër te itam te itam bugguma ma def bugguma def ci yéefar xam bugguma def ci yéefar baat si éloquent alors ne ko kon nag comme noonu la irréversible des mën nga ko jox tool ba mu la joxoon mu ne ko waaw mu ko jox naa la sama tool ba mu ne ko kon nag fàtte naa la ca am na beneen acte boobu ci cummeeku mooy bu fekkee ndaw si dafa dem ba sul ba jënd patin moom la ñuy wax cimmeeku xulucu ah mu xaalaa su ko demee ba waa ji ne ko téere bi laa joxoon mu ne ko joxaat naa la ko xam nga tey fii toog nañ ndaw sànq yedd te yedd ji jeexul defar weegu su neexee ndaw si mu ne ko joxaat ma suma téere tey bi continué bu edd ja jeexee nag ci wax bi commencé waat bu ko defee ñu ne kon Abdullah ibnu Abbas moom moom lañ tuddee xibrul ummati dafa mën jàng ba ñu tuddee ko kóoree xeet yi moom nee na inni la atazayanu limraati kama tatazayanu bi damay damay damay sol suma tuni ba mu jekk pour suma jabar ni mu koy defee pour man mais du ma nekk rek ci ay surna ci ay ay ay blouson suma jabar moom di sol et am na ci mbiru euh, kilifa gi maanaam yonent wala kilifa gu euh, mu di doon léegi seen position ci nit ak jabaram léeg-léeg dafay wuute jar naa xam ci sunna ndaxte jigéen jooju wax naa leen gaaw ne dafa dem ba mënut a demati mu ne nañ ko fase yonent d'accord mais bu ñaanoon fase ci dudul cause xam nga ni ko yonent jàppee déglu ñaari xadis boobu benn ba waa ji dafa ñëw euh, tawatal ko jabaram ba yonent dégloo tawat ba xam ne bii diggante dootu baax mu ne ko talliqha parce que mais ba keneen ñëwee beneen jigéen ñëwee ne dafa bëgg jabaram ba ci këram bàyyi ko ñu enquête ko ñu enquête ko fekk dara xewul xëy na am na lu ko gënal mbaa ku ko gënal yonent dafa xadis fii ne ayuma mraatin saala zawjaha talaaq fi gayri ma basin fa xaraamun alayha raihatu ljanna ñëpp war nañ ko dégg nee na jigéen juy sëy toog toog rek euh, am lii wala laa tax nga ñëw jëkkër ci tapas mu fase la te mu ne min gayri ma basin amul dara lu ko war a justifié nee na xetu aljanna ba aljanna ci moom xetu aljanna rek xaraam na ci yow te nag jóge ci ku am solde soixante mille dem ci ku am solde trois cent mille bu fekkee ne moo dàq itam bu fekkee ne fekk nga sax nayul fab ba mun la caa jox itam jarul quand même aljanna jarul quand même aljanna bu ko defee kon ñu déggee ci ne sëy kon luy atteem boobu gannaaw yi ma wax yépp dafay wane fulaam ma ne sharia ni mu ko tëralee mooy sëykat léeg-léeg nga gis nit koo xam ne takk jabar farata la ci moom waru ko ñàkk a def bu ko deful rek am bakkaar mooy koo xam ne bu sëyul rek njaaxum am sinon xam naa ulama yoo xam ne dañuy toog rek jël seen option rek ne duñ takk jabar dañuy liggéeyal xam-xam ba xëy dee am na façon benn xarit mu ci bind benn bu ndaw al ulama ul usab nga xam ne volontairement ñoom ñoo bañ a sëy rek waaw waxuma ñooñu ñooñu mun koo xam ne boo sëyul musiba am sëy am na koo xam ne moom sëy ci moom du waajib mais nag mën duub la wala mu baax la bokkul kii nag dagal la ci moom boo neexee séer boo neexee nag say mooy koo xam ne mën nga takk jabar donc mën nga jëriñ jigéen mais boo takk doon jabar itam du la wàññi dara kooku bu ko neexee na takk mu baax la wala mën duub am na nag koo xam ne takk jabar xaraam na ci moom ndax koo xam ne boo takkee jabar xëy na mënoo koo yore ñàkk mënu yore ga mun naa jur lu nekk mun naa yàq jikkoom mu naa yàq diine wala nga xam ne boo takkee jabar maanaam xam ci jabar te bokk na ca moome ga mënuloo ko loo jox sa dugg ci takki jabar takki jabar xaraam na ci yow am na nag sëy boo xam ne moom dafa xaraam mooy maanaam sëy bu ñu bëgg a ci boo xam ne lislaam aaye na ñaar ñooñu sëy kon nag sëy itam euh, ku ne yaa mu a nekk sa faf yu bopp xam am na benn waay boo xam ne bu laay danañuy wax ne charul balaa i ma ak xàgga musiba mi gën bon moo xam ne buñ ko waxee ngay ree mais musiba la waa joo xam ne yàlla na ko nattu mënul takk jabar mënul takk jabar mais mun ñeme yàlla rek ci Kaolack rek ne rek benn jigéen rek bañ may nañ ko ko rek après mu ca ëllëg sa mu ñëw di nekk li ay xaritam am nga yonent sax dafa aaye nit am jabar nekk ak moom génn di nekk li aaye na ko nee na loolu ku ko def rek li la yàlla fayee ëllëg mooy daf lay xool rek jëf li ci àlaxira du wax ak yow secret jigéen ci biir néegam ci biir lalam da nga koy denc doo ko wax kenn mën naa wax waaji nag moom ñëw di nettali waaji naan ko xëy man daal dama dem rek ñu foog ne du ma waaja may may dof dof lu rek ba ca fin ba rek ma daal ñu ñu xam ne du waaj euh, léegi kon foyer jullit mooy maillon bi njëkk ci société bi ñuy tabax bu foyer yi baaxee doom yu góor yu jigéen yi baax nit ñi fi sosu nekk ci nekk ci climat bu baax ñu yaakaar société bu baax lu société bi doon rek mooy li famille yi doon lu famille doon rek mooy li nit ñi doon fi mu ne Sénégal yëpp buñ leen yaree ci sago ñu am sago buñ leen yaree ci muñ ñu am muñ buñ leen yaree ci patience ñu am patience buñ leen yaree ci fonk li yàlla aaye te dafa bare yàlla nee na jul jullit yonent nee na jullit lu la joxu ci alalam rek xaraam na ak deretam xaraam na deram maanaam li ñuy tagg mbaa xas ci moom xaraam na bu fekkoon ne ñun ñëpp mariage dañ commencé waat famille yi ni ñu leen daan yare ku mel ni ndar de danga xam ne xale bi dafay dañ ko yónni ci nit euh, mu jox ko ndox ñëw ñu ne ko moo lu mu sol su waxee la mu sol da ñu toj kaawam nga parce que waru ko xool sax ba xam la mu sol yar la woon bu ko defee ni kon Sénégal itam ñi jógee ci biir kër yi ñooy nekk ci mbedd yi bu ko defee loo moomul sa yoon nekku ca loo xamul doo ko wax mais fi mu nii bu ñu bàyyee ku nekk mel nu la neex rek nit ñi di yàlla di jugé yonent bi di jugé malaaka yi loolu itam ci mi ngi aju rek ci famille famille kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu gënee sell kër yi xool ñi ci jógee kër Aboubacar noonu kër yi ngeen xam yépp ci kilifu yàlla defar te te ni ñu yaree ni noonu kat ñooy suñ nawle te ñu gën mais ñu war a nekk suñ nawle te nag yëpp ca mariage ba ak nekkin ba ak yar ba léegi kon am na sëy yoo xam ne yàlla tere na ko nañ ko wax nit ñi bu gaaw bu njëkk bi lislaam bi laata ñëw jigéen a ci gënoon sonn parce que sëy dafa amutoon maanaa amoon na sëy de wax dëgg yàlla sëyu sëy na sëy dut na ay nee na daan nga ñëw ngoro nit takk ko muy sa jabar comme sëyu nit ñi ba mu koy nett bi muy waaye am na yeneen façon yu doy waar yu daan am benn bi mooy nikaaxul bëdal rek nga bëgg kii rek jox ma sa jabar ma jox la sama jabar wala nikaaxul istibdaa ndaw waa ji dafay seet ben benn waay boo xam ne sax boobu xam nga geer ak kurus ya toog yooyu seet benn waay boo xam ne daf ko yéem mu ne jabaram bés boo laabee nga wax ma mu ne ko man day laab mu ne ko demal ci diw nga nekk fa ay fan mu dem ak diw nekk jabar waaja ba mu yëg ne ëmb na mu door a dellu si mu ne pour mu am doom ji ko neex ji ko amul diine amul wala nag lu yéesu loolu mu ne mooy ñi amoon drapeau yi seen buntu bergene yi mboolooy ànd rek di chanter ba dugg ku nekk rek dem ca ndaw sa génn bu toogee ba mu yàgg bu biiree mu oo ne leen fàttaliku ngeen bés bang mi waaw mu ne yéen ñëpp xam ngeen ne jaa ngeen mu ne yow yaa jur doom te kat bu ko waxee comme loi coranique la rek ñu dal di koy ñu daal di koy sànni malaan ma rek doom ji di doom xam nga loolu jaaxaan a nag beneen ba ci na mooy ki bunt yi nga xam ne moom daawul am sax par ay groupe ku mu nga ñëw mais ndaw si waxtu amee doom dafay seet gàtt gi rek ñi xam xiyaafa xool xool ne doom ci keekoo rajo lislaam nag ñëw bu gisee jullit nii ñu ci xamoon yàlla na ak seen sagoo ci parce que dañu naan kaasu xorom bu tat ba pare door a xam ndox mu tedd mu neex lislaam dafa ñëw nag indi yooyu léegi nag kon mariage bi lislaam ñëwee nag mariage yi mu tere mariage yi bokk na ci luñ doon wax nikaaxul mutaat débat bu gudd la laaj nag mais mooy xam mooy mooy mariage boo xam ne dafa am limit waa ji dafa naan ndaw si dama lay takk pour tey wala pour semaine bi wala pour weer wi wala pour benn weer wala pour ñetti weer amul sax fase bu wax koo jeexee rek jeex na nikaaxul mutaat kooku yonent mës na ko mës na ko autorisé ci ndiggante su gas ci circonstance yu jafe te xaybar mu jógi mu aaye ko am na nag ñu ci jàppoon gannaaw gi mais li mooy même chia yi ñu koy askan chia ñi ñuy wax ne ñoom ñu ngi ko dagal ba léegi loolu wérul ci ñoom c'est-à-dire al imam jaafar ibn muhammad nee na ñun liñ jàng mooy xaram takk jeg jigéen pour une semaine dem sa yoon xamuloo bàyyi nga ko biir xamuloo bàyyi nga ko muskila ah mu nekk fa amul adresse amul kilifa amul fu mu jëm ci semaine ba keneen takkaat ko loolu mooy lan alors yoon la islam aay na ko heureusement ndax bu ko aayutoon itam bu xel yi màggee dinañ ko aay seen bopp nikaaxu nikaaxu bi nga xam ne mooy nikaaxu shiraar xam nga moo doon nit ki dafa daan ji euh, Samba am doom ju jigéen moom mu am doom jigéen mu ne Samba takkal ma sa doom ju jigéen ji man ma takkal sama doom jigéen ji can biñ naayoon joxante mooy échange ñaari doom yi rek boobu yonent aaye na ko mooy nikaaxu shixaar islam aaye na ko wax nañ nag ne su fekkoon ne jiw takk na doomi jiw jiw itam takk doomam te joxe nañ can kooku aayul kooku dara nekk am na ñu doon lay nag dem ba naan soo ko takkee euh, te maanaam joxoo layu gudd lay amul njëriñ mooy daal nikaaxul ci xaar ay ay li nikaaxul mu xallil xam nga mooy kame mooy benn waay bu taggoog jabaram te jaarul fi mu waroon a jaar yaa gannaaw gi mu rëccu ko jël benn waay ne ko demal takkal ma soxna sa boo ko takkee dal li koy fase xaraam na pour mu takk moom xaraam na mu takk kenn xaraam na pour takk def ma ca màkka ma dëgg naa nga may ba foog ngeen rek euh, sëy bi dafay nekk lieu et non boo xam ne ki ngay takk ngi ci edda ji jeexagul boobu sëy yàqul su edda ji jeexee itam fekk takkoon koy takkaat yonente ne jigéen duñ takk te amuloo kilifa nee na sëy booba pour moom nul na laa nikaaxa bi laa wali jin laa nikaaxa bi laa wali yi boo ko seetloo nag dama yaakaar ne sax intérêt jigéen ji parce que yu bëri ci tey mbiru droit privé leen parce que ndaw si bu ñu ko takkee te kenn yëgu ko bu ñu ko jamee ku koy weddi bu xulóoyee ku koy atte su laajee droit bi ne ko xaw ma la yaay bu jëkkër mu def kañ laa la takk ku koy weddi moo tax laa nikaaxa bi laa wali yi day dafa war a am bàyyi bi juru wala ku amee baat baax kii takk moom sañ naa ko wakiil mu jox ko procuration mu teewal ko waaye nag jigéen ji moom kilifa ma ko mun a may wax nañ ne euh, buñ ko maye woon bu kilifa fekkee woon itam mën nañ dabaata yëgal ko kilifa ga ba mu joxe consentement foofu sax jar naa seetlu pour nga xam l'islam dañuy wax mais ni l'islam fonkee nit et partant ni mu fonkee jigéen passé na sax masala yi faral di wax ci conférence ci lu nekk la tey parce que itam tënk koo xam ne dafay tax kenn mun a itam jigéen doo ko mën a bett xaj ko gee ba tey moom jigéen la mu nekk nii jigéen mënoon na may ba ba mu mais nag comme bu xuloo amee te war naa am kenn du nekk seede foog ñu wutal jigéen joo xam ne kaafiratu la déglu leen bu baax man kaafiratu xam ne dafa def na yàlla amut wala mu am idéologie boo xam ne dafay weddi ne yàlla am na di wax ne matière moo am kooku takk ko xaraam na ci waxuma nag kitaabiyatu kitaabiyatu mooy jigéen ju am diine gëm tawraat mbaa linjiil waxuma ko kitaabiyatu dagan na nga takk ko kitaabiyatu mooy juif wala chrétien dagan na nga takk ko d'une manière générale waaye nag kaafiratu takk ko tey dama wóorut ndaxte kaafiratu boo ko takkee yow gëm nga ne rey xaraam na moom moom gëmul ne xaraam sax am na yow boo ko meree boo ko doon dóor sax da nga moytandiku gaañ ko ndax am nga lu moom bu la meree bu ko neexee mu am poisonné parce que dara xaraamul ci moom yu amuloo benn garantie boo takkee ku gëmul yàlla mun na la fenal mun na la wax ne maa la bëgg fekk dafay fen parce que pour moom fen xaraamul et mbooleem nag itam ñi nga bokkal askan te waroo leen mun a takk ñoom ñëpp boo leen compté sëy bu fa sëy bu tàbbi rek dafay nekk nul lu am benn eh, ak say goro ak nag benn boo xam ne dañ koy faral di tàggane mooy nit koo xam ne dafa nàmp maanaam góor gi ko yaayam nàmpal mbaa ay arm ku yaayam nàmpal munu koo takk nàmpal boobu nag moom itam soxla na même waxtaanu salon pour nit ñi dem ci ndax dafa bëri ay masala nampal xale mooy cosaan mais am na xadis yu ne sax nampal mag itam dina xaraamal ndax dafa musa am ndaw soo xam ne ci kër yonent bi dafa ne saalim mii de léegi majeur na te dafa dugg ci kër gi te vraiment jàmbur la yonent ne ko teere nampal ko ndaw sa dal di koy nampal saalim bokk ci waa kër gi di waaye nag nampal mag du cosaan parce que ñu ne loolu te ko beral loxo ngir circonstance yam nekkoon mais namp bi ñuy wax ne mooy xaraamal foog mu suural ka namp foog mu foog mu nekk foog mu suural ko foog mu participer ci saxal yaramam waaw waaw waaw ba ba mu fere bu ko defee ñu ne saalim masala masala xusuusiya la waaye nag mës la mu bari coow la ba gis naa daaw rek benn naar bu ci bind téere la mu di ko soutenir di wax ne mag mun naa nàmp mu xaram kon nag yooyu euh, defe naa ne xam ko baax na kon nañ yegg ci kër googu nga xam ne kon war nañ koo tabax ci baax yooyu yonent wax tànn ka nga war a jël du am benn lu ko teree euh, sëy ba ñu yombal ko ngir mu barke ñu xam ne na wala hunna mislu lazi alayhinna bil maaruf jigéen am na droit yoo ko gàddul am na yum la am na yoo ko sañ am na yoo ko sañul def am na fu mu dem ak fu mu sañul dem bu fekkee ne ci base yooyu la eh, kër gi yaakaar naa ne déggoo moo ci am jàng nañ ci histoire l'islam jamono yoo xam ne nit daan na xëy génnee këram maanaam di uti wërsëg jabaram ne ko diw mu naa mu ne ko maa ngi lay fàttali ne mun nañoo xiif muñ ko ci àddina mun nañoo rappelé muñ ko ci àddina mais alaxira buñ fa xiifee duñ ko mun a muñ kon nag rikk bu fi indi mukk lu lu tagalo ci jigéen di ko wax boobu jamono xëy na xëy na amatul boo ko defee ànd boobu nag lum neex neex neex neex lislaam du diine juy géwén diine réalité la l'islam euh, am na yeneen diine yoo xam ne dañu fonk ñu ne mariage ba ne bu xasee fas bu mu fecceeku ndax ñu ne yàlla koy fas ci asamaan kenn du ko fekki ci suuf et eh, comme nag ay nit ay marié nit dina juboo dina xuloo nit dina bëgg dina bañ nit dina soppeeku tax na ba fokk ñu xatal bunt mais fokk ñu ubbi ko ndax kat yonent fra xadis euh, bi mu ci wax ci gën a passage yu nit musa musa wax ci àddina la bokk nee na abgadul xalaali inda allahi atalaaqu nee na dëgg la fase dagan na mais nag yàlla mi ko daganal daf ko bañ lool moom la gën bañ xam nga nag maa ko daganal maa ko bañ mooy maanaam daal bu ko def lu mooy ci ultime record daal ko ne ndaxte bu ñu newoon bu kenn fase xoolal rek ci année 60 yi Vatican II bi moo ubbee ak mbunt rek ne fase mun naa am mun naa am ci biir catholique yi laajal ñi doon def ay recherche ci Rome ñaata procès de divorce moom la ñu sotti ci biir biro yi kenn xamul nu mu yem jaati parce que nit ñi dañ nekkoon ci séparation de corps yi ay yëf yu munu yoo xam ne amuñ cee yoon ñu ne leen nag fase war naa mën am booba rek kéemtaan mais l'islam nag moom dafa ne fàtte dagan na mais mais lu ñu war a ku la tax na ba luy tax kër gi neex rek l'islam sant na la ko moo tax ñu war koo jàng du fii mooy place am mais masailu mariage ak nekkin ak fàtte ak yee ci aju yëpp ci masala vraiment ku ay at la waroon nañ daal wax mu ne góor ñeeg jigéen ñi am chance bu ñu leen ko jàngalee ni ñu leen jàngalee arithmétique ci seen i classe njëkk te xëy na loolu dañ ci mas a yegg xanaa bu ko defee bokk na ci tax kër gi mun a mun a neex góor gi mariage bi mun a tax góor gi xam fi ay droit yem mu yem ca góor ga xam fu am yem mu yem ca Sénégal am nañ baat bu rafet man daf maa yéem sax ngir xam la muy wund mais nag waxin wa moom l'islam nangoo ko jigéen juy jaamu ca kër c'est-à-dire baatu jaamu dafa daal di toor parce que jaamu boo xasee gën a ci jaamu dootoo mun a bañ luñ la sant waaye nag jigéen ju fonk ca këram jigéen ju nopp jëkkëram jigéen ju jeex ci jëkkëram wax lu la neex rek jigéen ju wóolu jëkkëram te moo gën a foorati mais nag pas jaamu parce que jaamu bi yonent yonent bi dafa ne alayhi salaatu wasalaam la taata li maxluqin fi maasiyati lxaaliqi nit koo fonk bay topp ndigalam itam am na frontière mooy waxtu wu la digalee loolu yàlla sant na te léeg-léeg nga gis ci lu doy waat te boo fa jógee da ngay tëju sa néeg hôtel di jooy ci dëkk bu mag ci dëkku arab yi ci Afrique dañu dem di nuyu suñu benn xarit boo xam ne philosophe la bu xam itam xam-xam ni bi diw yi di nekk ci salle d'attente bi rek benn si ndaw soo xam ne presque boo ko gisee gis nga weer ci rafet ñëw fa mais ku bari wax la ndax ci salle bi noonu rek wax na moom la ko fa indi moo di dafa bëgg a consulter gi ci problème bu métti mooy jëkkër ji dafa yàgg Europe ba soppeeku indiaale aada yoo xam ne kenn xamul lan la ci àddina bëgg koo dugal ci benn groupe boo xam ne mu ne bu ci duggee moom ak jabar yi ñooña ak seen jëkkër ya kenn dootu ci xàmme kenn lu neex waaye mu def lu ko def ah mu ne ma ma ne waaye loolu góor gi lu mu ci mën góor ci mën loolu ñu fi mu ne yaa war a sàkku fase mu ne mënumaa ñàkk waa ji te mënumaa def li mu wax ma ne ko euh, kon nag jaamu jëkkër fu fonk yem rek baax na mais bul egg nag ci euh, Euh, nga war a def farata mu aaye la ko yonent nee na alayhi salaatu wasalaam jigéen day dëgg-dëgg su buggee or or weeru koor jëkkëram sañu ko aaye mais nag or gàtt nga nag na ca déggoog jëkkëram bu ko ne bu mu ba tey nga déggee ci foral jëkkër et bokk na ci yi tax tey bi mun a dëgër ci xàq yooyu mais euh, góor yonent am na yu mu ko tere tere na ko mu mu mu mu mu ñàkk tere na ko égoïsme ananiyatu yonentu wax benn xadis boo xam ne comme moom mooy moo ñuy jàngal mooy suñ bàyyi mooy suñ yonentu moom euh, dafay wax mbir yi pour ñu xam ko daye sax Seydina Aïcha wax na benn xadis dinaa ko wax fii benn Seydina Aïcha nee na nee na yal na yàlla yërëm jigéen jigéenu ansaar ñoom kersa terewulee na laaj seen diine maanaam lu question nekk na question bu pertinente buñ ko waree buñ ko xamul dañ koy laaj léeg-léeg sax xam ku ñëw laaj yonent yonent xaw a vraiment xaw a am kers daal ci wax ci masala yooyu ndax dafa biire bu ko defee ay jot dafay jàpp ndox ci loxoom rek yóbbu ko ca ko nangam nangam la loolu itam bokk na taxoon yonent am jabar yu bare ndax góor ñi lay jàngal ak jigéen ñi te am na masala yoo xam ne jigéen ñi rek la concerné bu fi jigéen ñi ñu koy jàng nekkul di ko jàngal jigéen ñi kañ lañ koy xam di ko jàngal sax góor ñi kon nag am na par exemple ci bi ñuy wax ci moomee ak bégal sa jabar ak mu bégal la yonent aaye na saaba yi te defe naa ne ñoo gënoon ci xeet yi ne leen maa ngi leen di aaye nit ku du nekk jabaram tëb rek na xëtëb ci ko mel ni mbaam wal yakun lahu minhu rasul aw ilayha am fu mu yónni ci moom ñu ne ko yónent mooy lan mu ne mooy na ko kafe na ko kafe nit nit du bant bu ñu tëb rek xëtëb noonu da ko kafe xadis ba sax ñu ne garibul la mais xadis ba ku ne xam na ne jaay ko yonent mu ñu ne ko lu mu yónni ci moom mu ne mu ne fóon ak wax yonent ko wax yonent ko wax fóon ak boo ko defee su fekkee nag jàmm jooju moo am li koy yàq war nañ koo wax bala ñu wax passé bu fekkee ne ku nekk yaa ngi toppatoo sa morom xam fa nga war a yem jàmmay am mais bokk na ci xàq yi ndaw si euh, bokk na ci xàq yi waa ji euh, yi waa ji moom ci jëkkër ji moom loo xam ne yonentu wax na ko wax bu dëgër bu ñagas a ñagas nee na góor ak jabaram ci biir néeg ndaw si tapaas ko ko góor gi mer ndaw si tëdd moom kenn nee na na ko wóor ne guddi gi yépp malaaka koy rëbb di ko ñaan yàlla sonn ko yërmaane c'est-à-dire euh, ne ne da ngay sa jëkkër ci méthode bu ñàkk fayda boobu yonent bañ na ko ba ne boo ko defee malaaka ya yaa ngay neloo yow malaaka yaa ngi lay ñaan yàlla ndem waa ji mer na ndem waa mer na nga xam ne kon intimité jëkkër ak jabar noo ko wanee rek daf lay doolee wan ne sëy ndege lu rëy rëy rëy waaye buñ demee nag ci ànd boobu ba nga xam ne dem nañ ci ba nga xam ne yonent nee na soo jëlee boo tibbee dugal ci sa gémmiñu jabar xanaa loolu kay ku nekk xam na ne affection la xëy na ceet gu neex la lu yonent nee na yàlla daf la ciy bindal yoon yoon dafa ciy bindal yoon tib rek def ci defar mu waaye du tere nag yooyu yëpp du tere bu ñu demee ba ca biir fu xuloo mën naa am xuloo boobu nag la yonent wax ne niñ koy réglé alxuraan ko rëdd ku ci jaar sa kër du la mukk te itam boo fasee jàmm rek tey xew ku ci jaarul nag ci la problème yi ñëwee moo tax aaya ba ne wa aachiruhunna bil maaruf na ngeen ànd ak seen jabar yi ànd bu yiw maaruf ak taqwa ak xayru ci baat yi nga xam ne seen firi dafa yaatu la ci alquran mu ne fa in karihtumuhunna bu ngeen leen jëppee ci moment bi wala pour raison bi fa asa an takrahu shay'an wa yajal allahu fi xayrin kasiran pourtant léeg-léeg ngeen sib dara yàlla def ci yiw rëy aaya boobu rek ku ne mun ngaa kër gi ko firi sa léegi leen nga mer bugg a toj àddina muñ gis muñ gëlam jëriñ kon nag mën nga jëppi ndaw si fekk nee na loolu nga jëppi yi wu réy nga beneen aaya ma wa in xiftum shiqaaqa baynihima su fekkee ne ah, su fekkee ne jigéen da nga ragal ah, mu foñ mu mu mu foñ fay mu dëddu la nee na état bi man yàlla fa izuhunna benn wahjuruhunna fil mabaaji'i ñaar wadribuhunna foofu nag bañ feegi mu ne fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kaana aliyyan kabira wa in xiftum shiqaaqa baynahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha xam naa ñeenti état ba ngi noonu yoo xam ne wax dëgg yàlla ci famille yu bëri tey dañ koy fàtte moo tax problème yu bëri di am ci fase boor toon am wala fay li bu lislaam daa ko ruddu am bu njëkk bi mooy bu ngeen ragalee ne ndaw si léegi euh, mer na te juboo jafe na yàlla ne li mën a ñëkk a sant ci alquran mooy euh, fa'izuhunna na nga ko raisonné waar ko wan ko bu fekkee ne am na xéwal bu nekk xamu ko nga won ko ko te bu ruus wax ko ko raisonné ko wax ko digal ko su fekkee ne amul njëriñ nga door a seet beneen ci mais ñu jigéen yu bari boo leen raisonné danañ ko dégg dellu gannaaw mais xëy na du ñëpp wahjuruuna fi mabaadi'i ci deuxième étape bi lislaam rek mu ne mooy na nga ko négligé bu tëdd jotee na tëdd jublu ni nga du mooy jublu na le woon ko ne curaay lim xeeñ yëpp dara sax bu ma ci nga sol robb yi yëpp dara sax bu ma ci du mooy ko fële am na ñoo xam ne loolu rek mooy mooy damm seen jib parce que vraiment daf leen di choqué xëy na fa lay yem fa lay yem waaye nag su delloo gannaaw yow tam dellu gannaaw bul te péer ndax dafay yàq gañe naa ko tuuti rek bugg a continuer bu gisee boppam rek tey ba bu fekkee ne baaxul état bu ñetteel mooy wadribuhunna na ngeen leen dóor am na journaliste boo xam ne dafa dafa dafa dafa ragal féministe yi ba nga xam ne bu buggee wax buy buy def buy def reportage bu eggee ci wadribuhunna daf koy tëb quoi te dafay ragal gaa ñu wax ko dara bu tax ko wax bu ko mais nag nee na dóor boobu sunna nee na dóor sa jabar bum nàcc bu mu nëwi te bu laal kanam boo taxoon kii keroog ma mooy bàcc bàccal tuuti ah, booy dóor ci ndaw si te du naaj du naaj te doon kanam boobu kay ku ne xam na ko bàccal tuuti rek tuuti loolu mooy wane ne rek nga ko xëy na ca yem wante wante waxuñ dóor yu rëy parce que gis nga seytaan dafa bëri doole àddina dem na nit ñi di perdre seen seen seen état de pureté yi ñu amoon ba nga xam ne am na dem nañ ba nga xam ne léegi crasse yu tàng yooyu nga doon dóoree ndaw si am na ñoo xam ne mooy seen bànneex fi bi moo ko nekk dafay fay ku ko dóor sax dégg kon nag xëy na bu ca yemee bu ca yemul nag quatrième étape mooy fabasu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha utal délégation boo xam ne ay mbokkam dañ koy nekk say mbokk nekk ca in yurida islahan yuwaffiqillah baynahuma su fekkee ne ñaari délégation yi amul ci benn buy njuuj yaay xanaa dañoo bëgg defar in yurida islahan waxuñ ifsadan su fekkee dañoo bëgg yëf yi baax dana baax mais léeg-léeg eh, malheureusement léeg-léeg ñaari délégation yi ñëw fekk am na ci boo xam ne bëgguñ sëy bi continuer bu ko defee propos yi ñuy wax daf ci am luy merloo ñi ci def man benn waaye nee na ma mun naa invité nit te dama ko invité te ñëw boobu te mun naa invité te te li tax ma invité ko mooy bu mu ñëw te dama koy defee rajo am na ku ma ko xam mun ngaa jubale ay nit pour jeexu loolu yéen ca la mu def nee nag waaye nga seetlu euh, su fekkee ne ñeenti état bi yépp amul njëriñ nag war nga njëkk laaj sa bopp yow jëkkër ji ak yow jigéen ji moo li tax yàlla mbir mi jaral ko coolo bi yëpp lan la mooy sëye for rek mooy passé bon rek waaye nag su mënta ñàkk nag dara tanewoo ko su boobaa nee na passé ci des bu ci passé nag ulama yi jéem nañoo seet daal combien de semaines la nit war a am pour waajaay boobu yegg ci pase bu jaadu bon bala ci ñëw damay wax ñi ko jàngagul ne pase ci ni ko yonent jàngalee ñaari façon yi pase la benn bi la ñuy wax talaaku ak talaaku sunni yu pase boo xam ne moo dëppoog ni yonent bi jàngale ak ak talaakul bid'i yu mooy pase boo xam ne nit ko fent la boppam dëppoowul ak ni yonent tërale woon d'emblée para talaaq euh, euh, euh, sunna ku ne xam na ne moo ndax moom ni mu amee jaadu na yonent bi reconnaître na ko te boo bëggee juboo moo gën a yomb talaaqu bidaa nag bidaa moom dalaala la ku ko def sax da war a gaaw génn ci waxatuma boo ko defagul ñu ne luy talaaqu sunna talaaqu sunna mooy bi waa ji fexee jubóog ndaw si te ko dafay nag jàpp ci nag pour fase mais fasewul pour toujours dafay fase xëy na fase boobu itam nekk buntu dellu si ndax l'islam ci mbiru fase exactement comme li médecine di jàngale laajal sage-femme yi nga xam ne euh, euh, seen mé seen kuuru médecine dañ lay wax ne su jafe amee kër ci juddu lu mën di xew taweel yaay ji ko taweel yaay daal kenn mënut a ñàkk dem nay xale bi yaay ji na fi toog mais itam li tànn dafa daal lu mën di xew taweel sëy sëy bi bu ko defee nga xool ndaw si ba mu ñàkk julli nga bàyyi ko ba muy julli te doo ko jege xam nga loolu lu muy jublu mooy yaa ngi koy fase kat ne wóor na la ne ëmbul te itam am nga fan yoo xam ne may na la pour nga réfléchir bu baax ndax mën nga góom de fan yooyu itam war na moom itam xëy na mën na ci riccu loo xam ne mi ngi woon ci xelam wala mën na am euh, xaritam ba yéyoon nopp ba ku ko gën a baax ñëw na fa ci diggante bi yépp bu tey soowee rek la ci yàlla waaye nag ala kulli jubóowuñu nga ne ko fase naa la mais benn yoon mu am seede su boobaa nag xool conséquence yi ak amee ci fas yi aju ci fas ak na ko yàlla tëralee moom ndaw soosu fase nga ko nekkatul sa jabar fañu tuloo bànneexoo ci moom téere yee ko wax baatu bànneexu lañu wax nekkatul sa jabar mais nag du génn sa néeg maanaam kër gi de waxuñ waxuma ngeen bokk néeg mais du génn kër gi te itam yaa koy dundal fekkee yaa ngi def li sunna wax laa wax bu neex nga mer nag def loo neex te su fekkee mu tombeeg mu amee doom ju muy nampal yaa ko war a fay nampal ndax ndax ndax wa alal mawludi lahu risquhunna kii nampal donc góor gi ko war a fay nampal moo ko war a yore itam te itam beneen conséquence mooy su yàlla defoon àppam jeex ci diggante soosu euh, edda ji jeexagul mu dee bi jigéen góor gi dina ko doon su fi góor gi deewoon itam jigéen dina ko doon te itam su fekkoon ne ci et biir été ji euh, jàmm xew na ci kër gi bu góor gi buggee jëlaat ndaw di soxlawul takkaa soxlawul canaan daf koy indi rek ñu déglu ko bu baax a baax parce que ñun dañu gaaw wax baat te baatu sow ji moo ci mucc ci affaire te lu baat yooyu dafay compliqué ndax léegi-léegi mu jaar ko xam dootu ñëwaat bu ko defee fase boobu bu jeexee nag te jëlaatoo ko léegi fase yañ doon wax ñett benn ba dem na ñaari chance rek nga dese bu fekkee sunna ngay def e léegi nag edd ja jeex na xëy na ndaw si ne na ah man kan ndekk kat kii nga xam ni lii la ma daan defal nii la ma daan def lii la meloon nangam nangam nangam nangam nangam xam nga mu yeddee boppam waa ji dem wala waa ji ne ah man ca ndekete di ma foogoon ndox ñii alors buñ buggee waa ji dafay démarrer rek xutba can ñu mayaat fi nga xamee ne passé rëy ci l'islam passé rëy ci l'islam bu ñëwaatee waaje bu jàmm amee d'accord bu ay amatee même étape yooyu lañ ko santati dañ koy waar su déggul nga négligé ko calal ba su déggul nga dóor ko tuuti su déggul ñaari délégation ñëw bu déggul nga muñalati ko ba óor ko ni ambalu la dara nga fàttali ko deuxième fàttali mu nekk di ca kër ga nga di ko dundale ci soo buggee jëlaat ci saa si su fekkee ne dem na ba nga xam ne bu dee nga doon ko boo doon mu dee boo dee mu doon la su demee ba tas ba mu jeexati te nga buggaat kooti nga joxe ak seen takk ñaari fàtte dem nañ léegi nag tey ci des ndax bii ñëw ci boo jaarate foofu ba fase nag muy troisième fase su boobaa nag mënatoo koo jëriñ fekk beneen góor gisu ko gis bu normal bu naturel takk ko takk bu normal bu naturel tàggoo nga moom tàggoo bu normal bu naturel nga amati droit pour jëlaat ko moo tax am ku ñëw ci naabaat ne ko ah man de ñetti fas yi ñuy wax ci alxuraan gisuma ko ndax yàlla daf ne atalaaku marrataani te nit ñetti fas yi la ñuy wax mu ne ko ah min ci de waaye nag ku mën a xuus dëgg koy gis de maanaam atalaaku fas yi nga xam ne mën ngaa jëlaat sa jabar ci lu dul baax na sow ji ñaari yoon rek soo fasee troisième ba nag fa soo takkaatee troisième fois bi fa imsaakun bi maarufin aw tasrihun bi ihsaanin na nga bu baax na wala nga bàyyi ko bàyyi bu waaye nag sa chance jeex na nga xoolati nit li ko yàlla may itam di ko xañ boppam ci posoo ko ndaw si samba takk na ko fase ko waa ji jëlaat ko ci dafay recommencer at ci zéro maanaam dañ ko joxaat carnet bu dara na nekkul mu mun a takkati faseeti takkati faseeti kon kay ñu xam ne loolu kon noonu la mel li bëgg a jàng rek mooy te it mënuñu caaxaane aywa léegi wax nañ leen kon fase sunna fase bidaa nag fase bidaa nag mooy fase bu utee boobu rek mooy maanaam waa ji dafa yi dafa dafa yéex a wàcc ñëw ay une bu ay ay ay douze heures quarante cinq yooyu te am rendez-vous boo xam ne ay quatorze heures la fekk añ bi xaw a yéex lii kay jarul mer mais mu di fa mer ci xul ba xuloo juddoo ca ba fase juddoo ca bi muy mer ci fase jotut a xam sax ndax ndaw si daraan ci moomam de wala ñu ñaan ko dara amu ko ñu boole ko jabar ji te gëstuwu ko dégg nga ni masala yi dafa bari mer mu ñëw ci saa si rek nga fase daal yaa ngi ci bidaa bi daal boo ñu ne bi daal boo fasee sa jabar fekk mi ngi indisposé fase bi daal te yonent bi bañ na ko alayhi salaatu wasalaam Abdullah ibn Umar doomu Umar ibn Xataab la dafa fas jabaram fekk ndaw saa ngi nekk ci indisposition Umar ñu wax yonent bi mu ne ko mu ne ko nekkoon na ko jëlaat te ndigal loo koy jox la maanaam ndigal dañu koo bañ su fekkee daf ko bëgg a fase na ko jëlaat garde ko ba mu laab mu bàyyi ko ba mu indisposé mu bàyyi ko ba mu laabati su ko bëggee fase na ko ñu ne mi ngi ko ci yalaale ci mu téye ci këram ku ko neexatul ñu ne mi ngi ko jox occasion pour mu seetaat boppam ñu ne ñu ne ñu ne mais alors loolu mooy li soratu soratu balaa si doon doon wax bon léegi bu fekkee ne bu fekkee ne fase na ko fekk mi ngi biir fase bat bi daal l'islam aaya na fase jabar mu biir ci ngiru imam Malik fase ba dana wéy mais def nga lu bon ndaxte bi nga koy xamee li ma la waxoon ne l'islam droit wu góor ji wala jigéen ji lay seet xam nga ne yedda jigéen du ëmb mooy mu dem ba ba am doom supposons que waa ji meree léegi parce que ndaw si ndaw sànq ci weeram bu njëkk mooy maanaam condamné na ko mu toog fi juróom ñeenti weer wala lu ko ëpp tuuti door am doom xoolal nag weer yéen cay teg pour am aptitude pour door a xalaat ni dafay marié loolu yëpp ci sa mer mu te moomu dafay ne boo teyoo loolu du moo tax wala nga mer ñu ne ba xàmmewoo li ngay wax boo fa fase bi daal ndax nit dafa war a tey lu réfléchir ba xam ne lii muy def te état bi alxuraan waxoon wane na ko te comme tudd nañ fase nag war nañ cee war nañ cee war nañ cee wax tuuti Euh, ne fase am na fase boo xam ne euh, fase bu wóor la bu yox talaaku sarif fi mu ne nit mun naa fase jabar fase bu leer fase nga fase naa la xam nga amul la dem fase naa la mu daal di bu fekkee ne réew mi la mu jël bagage am dem bu fekkee sunna la mu toog ci kër gi te jotetu leen dara mais am na yoo xam ne da ngay kinaayaal euh, yow daal demal fu la neex yëpp ci affaire fase la mais parce que boobu il faut ñu seet waa lu mu ci jublu waaw il faut ñu ci jublu am na fase boo xam ne bii moom mun naa wax nit ñi mooy bu fekkee ne divorce boo bind lettre la lettre bi wax doom eggee ba ndaw si jàng ko ci la fase bay commencé mais du bés bi nga ko daté yow mën naa bàyyi xel am na fase boo xam ne waxoon nañ ko mooy mu xaalaa maanaam ndaw si dafa dem ba mënatu la dem mu ne la jaay ma suma liberté bi jëlal boo ko bu la joxoon xotti tàndarma sax soo ko nangoo rek tey ba tax fekk edda ji jeexul c'est une mun ngaa dem am na koo xam ne da ngay sëyeeg moom mu ne la xaw ma luy tax sa mbir a sa loxo temps boo demee ba mu neex la rek bu la neexatul rek mun ngaa tas sëy buñ ci d'accord rek ndaw si mu mën la kët la su boobaa mun naa tas mun naa itam euh, mun na itam nga nangu charte waaye charte yooyu nag war nañ cee waxtaan condition wu sëy ndax daf ci am yu islam nanguwul xam nga suñ mbokk naari gànnaar yi comme dañu bañ wujju xam na si ñoom rek la mais ñoom comme dañuy wax ne ndaw si boo koy takk dafay wax ne la sabiqata wala laaxiqata la sabiqata mooy su fekk kenn boo fi ku ma fa jiitu de même bu ma ko fekkoon jéegu ma koy itam man tas naa laaxiqata du am ne kenn du ma fa fekk man tas ku ma fa fekk rek bés bu ma ko xamee rek suñu ko tas na su personalizar meras duas. pour mu fase la koy am dafay jàll nit mun naa wax jabaram ne ko xaraamal naa la sama bu buñ ko laajee mu jublu ca fase dafay dox mais yooyu yëpp bu ko jaaralee ci yoon wu jub dafay nekk benn fase boo xam ne mun na ko takkal ñëpp nag ci ulamaaw yi d'accord nañ ci ne fasendoo jigéen ñetti fase yooyu ma doon détaillé léegi yow nga groupé ko muy benn muy benn coupé nga sànni ko ko benn yoon ci benn jotaay ñëpp daje nañ ne lu bon la luñ tere la ci taaw yonent alayhi salaam ku mas a fase jabaram ñetti yoon ci benn jotaay dañu ko daan jàppee rek benn fase te nag dëgg dëgg loolu mooy dëgg parce que parce que bu buñ ne atalaaku marrataani xam nga boo gënee na almarratu almarratu juz'un min az-zaman maanaam fi ne ni buñ ne benn yoon buñ ne buñ ne ñaari yoon la maanaam waxuñ ne ñaari wax la non l'ensemble opération bi ñu tuddee fase benn yoon ñaari yoon waaye mënoo wax ne wax bi mu koy wax ñaari yoon la kon nag mais nag jamonoy Abubakar itam noonu jamonoy Umar ibn Xattaab nag moom moo gis ne nit ñaa ngi fontoo facette comme yàlla comme yonent mayoon na ko nag mu góor góorgóorlu ci diine su jubalee comme ñi ci des ñëpp yàlla jox ko ñaari yoon su juumee yàlla yàlla jox ko benn yool moom mu ne daal gis naa ne nit ñi ñi ngi yàkkam ci mbir moo xam ne yàkkam ci wutoon ci ni ko yàlla tëralee ba ñuy gaawantu di fàtte ñetti yoon ci benn yoon ku ko defati nag dinaa ko wéel ma Omar nag moo doon xalifatu muslimin mooy Omar mi et législateurs yi itam d' accord ci mais nag ba léegi ni ñaa ngi koy discuter parce que tam wax nañ ne circonstance yam ko defee woon su passé mën nga caa bañ a tënkoo ci yow ndax am na ku mu sa passé ñetti yoon ci jamono yoon bi ñu ko ko waxee dafa jóg mer ne atatalaabuuna bi kitaabillahi wa ana bayna azhurikum da ngeen di fonto alquran te maa ngi fi jógaguma fi sax ñu koy wax dëgg loolu passé yooyu mën na xam am na nag passé boo xam ne moom dafa xaraam mooy yu mel noonu maanaam passé ñett yooyu dafa xaraam boo gisee nag ñu ko moo ñu ne dañ koy yaree ki ko doon def kon nag ñi yaru nañ dañ ko war a dañ war a dellu ci cosaan ndax kër lu koy garder moo gën lu koy tas te gis nañ ba tàyyi passé bu tas kër tasaare ay doom jur ay mbañeel indi ay problème te safaanab loolu moo doon moo doon sëy boo ko rek jàngal alquran wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahmatan nee na yàlla bokk na ci yi ngay xamee dooleem moo la bindal jabar yoo xam ne nit la ni yow mu def ci seen diggante lu raw nobel mooy mbëggeel gu xóot ak yërmande nag nag buñ jógee foofu ba egsiwaat ci suufe boobu du baax ngoo jafe na am na état yu bëri dañu mujj def ay législation yoo xam ne dafa jafeel fase ci domaine boobu proprement dit jafeel fase moom lu baax la tere ko nag baaxul nu mu gën a niroo nag sunna moo gën a baax fekk ba nit ñi eggee ci sunna heureusement que Afrique gisaguma fi réew mu ñuy forcé nit ñi ne foog ngeen tënku ci législation bu bees déedéet c'est-à-dire musuma gis ku ne damay tatbiq sharia ci ma kër ñu aaye la ko kon nag nañ sant yàlla te góorgóorlu ci ala illa takun ibilun fa am na xeetu fase yoo xam ne yàlla baax na bëriwu fi mais mat naa xam itam am na ci jamono yonent ñoo xam ne ten fas dañu daan ten seen fase mooy dañu daan giñ giñoo ak sa jabar am na fase boo xam ne rëbboo sa jabar la moo ci gën a garaaw am na fase boo xam ne da ngay nirale sa jabar ak sa xarmalante am na ku mu toox am ne ko yaa ngi mel ni sama gannaaw yaay ci man dagg la lu ñaaw soo ko defoon sa alxuraan dafa wàcc di ko yedd am na yoo xam ne da ngay am na euh, am na jullit boo xam ne dafay tuumaal jabaram ci ëmb bu mu ëmb wala doom ju mu indi walla lu luñ ko tuumaal su boobaa nag fexe amatul parce que yonent dafa bëgg nee na euh, saaba yi ulamaaw yi bu ñu teg ci deru jigéen yoo xam ne bu jëkk su boobaa nag dañuy buñ munta juboo dañuy rëbbante dañuy waat rëbbante bu daw ci waatee rëbb kii waat rëbb rek ñoom ñaar yëpp set nañ mu des nag la nekk ci kanamu yàlla su boobaa nag tàggoo nañ dootuñ mun a ànd ba dina tukki moom bokk na ci yi nga xam ne dafa rattaché ci d'ailleurs ci ci masala boobu masala ku tuumaal jabaram ba ñu rëbbante yonentu wax na góor ji wax na jigéen ji ndax moom ñëpp lay wax na jigéen ji ne ko ayuma imraatin adxalat ala qawmin man laysa minhum fa laysat min allahi fi shay walan yudxilaha aljanna dara gënu koo jigéen ju fexe ba boole ci famille ku ca bokkul nee na yàlla faale wu ko tudd ko dugal aljanna ci xam-xamu diine nag waxtu woo déggee dëkk bu garaawee noonu ña ngi ca ña ngi ca rabb fekk tuubul yàlla nangu tuub góor gi mu ne ko ayuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilayhi ixtajaba allahu minhu wa fadaxahu ala ruusi al awalina wal axirin nee na góor gu gis sa doom xam ko soxore ndaw si rek tax nga ne juruma kii nee na yàlla te yaa ngi janoog doom ji mu ne yàlla dafa lay nëbbu te dina la toroxal bu nit ñëpp teewee bis bañ ci way njëkk koy mujj yàlla dina la toroxal parce que toroxal nga jigéen jooju jotee lu dara yooyu yëpp kay xanaa éducation kon nag mun naa wax ne kon euh, pour ñun jullit ñi problème mu sëy boobu ñu doon jàngale depuis fukki siècle ak juróom yàgg na mais. du sàppi du màggat yonente ko wax nee na albirru la yabla nee na lu baax fakkat baax ci valeur dëgg-dëggal ci bëtu yàlla du màggat mukk ci àddina kon nag nañ ci jàpp daaw jéeg amoon na benn bu amee affaire sociale ci France bu jigéen bindoon na benn article di ci wax ne français yi seetlu nañ ne fi ne dañuy gën a néew lu ñuy marié di gën a bare lu ñuy fase te bari ànd bu ñuy ànd ci dugul mariage muy loo xam ne dem na ba doo xamante lu muy niru parce que toog naag suma benn xaritu commerçant benn xaritam bu jigéen bu jógee France di ko li lu mu fa bàyyi daaw ji ci loo xam dafay dafay encouragé jigéen ji ci dajale ay doom ak nu mu ko mën di ame parce que boo demee ne doom ji kat jiw ma ko jox pare na ñu def ay bind léegi cinq cent mille par loolu muy niru ba ca ñetti doom ji ma nga xam ne kon nit mun na laa raw ci développement économique ak ci technique te fekk ay jikkoom def da jullit li ko amal njëriñ mooy mu jéem a fexe ba xam surtout li ko gën a jege muy seeg fate mu xam lu ca yàlla wax mu mu mu jàpp ca ndax moo jig société bi te itam moo jig moo jig itam waa ji ci boppam aywa kon bu ko defee comme euh, masala yi àgg ci fase ak sëy dafa yaatu ndax boo xasee egg ci fase waroon nga mun a traité yedda ak façon yedda yi ni ñu bare ku ñu fase ak ku jëkkëram gaañu ak ku koo xam ne xale bu euh, majeuragul la ak màggat moo xam ne gisatul benn aadala la yooyu yëpp ay masala yoo xam ne nag war nañoo créer ay occasion nit ñi di ko wax nit ñi pour ñu xam ko mais nag xaju fi tey wax bu ñu eggee itam ci ci ci ci maanaam ci yedda am na lu nekk ca gannaawam mooy itam ku gaañu bàyyi nga dara naka koy séddalee yooyu yëpp ci famille la bokk tax na ba kon kut wax doom itam bu sëñ amee tasul ba doom juddu itam famille boobu yar ak éducation ci la bokk tax na ba mi ngi mel ni base yu yëf yëpp mi ngi ci lu ndaw lii ñuy waxtaane tey kon li ma bëggoon mooy ñu tëjee wax ji ne suñ jotaay bii te itam wax dëgg yàlla léegi mi ngi commencé bari Sénégal ne na gën a yaatu te gën a bëri xam-xam dañu koy wuti dañu koy wuti maanaam dañuy sakku pour mu génn te itam euh, lu nit ñi jàng lu pratique loo xam ne boo ko xamul ñu laaj la ko moo ci te yii ci la boo ko xam farata yi quand même xam yi ñu yàlla lay ñu décidé itam ci am yoo xam ne dañ koy soppi te jigéen ñi ñooñu ci mën a dimbale surtout dellu delloo sëy na mu simple woon ci jamono yonent bi parce que yonent doomam yu for yooyu yëpp ay jur ay ñeenti téeméer dërëm ak ay juróomi téeméer dërëm la leen daan maye te terewul am na ñu barke fàtte naa benn point boo xam ne war na intéressé ñu bare fii mooy affaire tànn bés ak weer parce que Sayyidatuna Aïcha wax na ne man weer wii maanaam weer wi topp ci koor ci la ma yonent takk xam nga moom dañ ko takk mooy xale ñu bàyyi ko mu door a nekk jabar nee itam ci lañ ma jébbale mu ne xool leen nag kan moo ma ëpp chance ci sëy xam nga loolu mi ngi campagnal koy ci kon nag rikk gaañ yi ku ci amoon kuy ci we fan yi weer wu baax a ngi te itam ñu bàyyiwante xel ci nag fond yëf yi parce que boo gisee ñu naan mariage ak fase ak yarak ak jikko yëpp kat baat bi mooy maanaam lislaam lislaam nag lépp la ni gisee yëfam nii mu dañu rëddal ci affaire famille noonu la rëddee lu nekk ci àddina seulement nag li ma bëggoon rek ñu bàyyi ko xel ñun du arbi ñun ñi ñuy wax arabisan yi moo di ne yonent am na màkka fukki at ak ñett lu may tabax tawxiid rek ba nit ñi xam ne ku ñuy wax allahu te muy joxe ay ndigal am na ñu dem Medina mu wax leen lim leen di digal tabax tabax benn cité état boo xam ne euh, état su ndaw la me lépp ngi ci biir te ba mu fay laata dem forcé wu leen occupé wu leen ci doole dafa leen a wax ñu nangu muy def ay délégation yuy dem ko yóbbu daje at gannaaw at mu yebal fa ñu leen di jàngal ba am mbooloo mu rëy mu ko teeru mu mu di leen àtte ci lam indi ñi ci def mu bàyyi leen ci lañ nekk. ku nangu dugg ku nanguwul bay yahud yi sax toxtoon nag liñ ko bëggoon a assassiné yàlla jox ko ndigal fu mu génne leen fa du leen fa génne l'islam amul force amul portée l'islam kenn du ci porté nit barakallahu fi barakallahu fi xew l'islam kenn mënu caa porté nit moo tax li ma bëggoon a dénkaane mooy ñu am tuulu nafas suuful bu gudd bu amee loo xam ne vérité absolue la te àddina yépp ko war a gëm te nga xam ne amul ikra su fekkee ne teeyuloo amuloo suuful bu yàgg yaafaloo sa xol di nga am bés situation boo xam ne kala waroon wax la allaka baaxi'un nafsaka allaa yakun muy ne nekkatu bi maanaam maanaam al alquran wàccatul te yonent sax demoon na bañ ne ko ndax da ngay xaroo parce que daañu gëmuñ in alayka illa al balaagu ñu d'accord ci am benn misaax am benn charte woote l'islam mooy ñu ñàkk suñ sago duñ ci dugal suñ bopp duñ mere di ko waaraatee du ñu gaawantu wax ma mu njàngagul te itam du ñu yàlla du ñu yónni dañuy jàng yi rek di ko jàngalante yonent nee na alayhi salaatu wasalaam ña ko fekkee woon lu ngeen dégg ci man rek na ngeen ko nettali ñi fi nekkul ndax léeg-léeg nit jël ci man wax ko ku ko ko gën a dégg man jawwu ka bi ma nekkee xale loolu ci laa ko ñëkk seetloo benn directeur d'école boo xam ne jàngul lu may français jàngul ci lislaam dara jaagati na ma ci benn xadis yonent bi ndax xadis bi dama ji gis yonent di wax ne alayhi salaatu wasalaam ku am kër jaay ko da njëg ga jëndoo ca beneen kër yàlla bu yàlla barkeel njëg xam nga mu mu choqué ma comme xale ma ne ku moom sa kër mu neex la nga jaay ko nga moom sa njëg yonent de ci ñaan yàlla lool moom xanaan maa ko déggul njaay ne ma ah looy wax noonu ma wax mu ne ma waaw ah, loolu yomb naa xam jaboot gee tax xay na nag ku xamagul luy problème bu borom kër gu amul kër doo mun a déggee xadis boobu c'est tout un problème te itam ñu fonk suñu ndono li suñu ndono li te mooy lan alxuraan yàllaa ne woon dina ko wattu wattu na ko te moom rek ko mënoon a dige ndax force yi ko doon daanee ko bon doole mais mi nii dox naa ba yegg ci am réew moo xam ne ne nañ ma kaamil bi si naa Ousmane ko bind amul tomb amul maska ma jàng ma liir muy muy comme bi ma bàyyi sama kër rek ma xam ne yàlla mën a wattu ndax boobu amul ab sib amul dara te itam ñu fonk li baax ci suñ tradition yi parce que réew réewum jullit am kilifa du ko yàq ñàkk kilifaa koy yàq boo boo sawaree nag ci delloo yi fi cosaan nekk fondamentaliste dafay mel ni sëriñ ci nekk ci kanamu nit ñi di leen wax dara dafa mel ni ñoo leen tardeel wala ñoo leen teree dégg ma foog ni safaan ba parce que am kilifa am ku lay jàngal soo xamul ku lay wéttale boo xamee ku lay initier c'est un besoin humain su fekkee ne waaja waaja la sa bàyyu maanaa la boo xam ne évolution jarul nga fàtte ko waay albirru laa yebla albirru laa yebla mais nag réew du dem ba xam ne kum neex nga nekk éliman kum neex nga nekk mufti kum neex nga nekk philosophe kum neex nga nekk prophète kum neex nga nekk yàlla du loolu da ngay da ngay jaar ci rëdd wi lislaam rëdd lañ ci mën a kës néew boo amee kilifa nga fonk ko parce que xam naa tey réew yoo xam ne même ci biir Afrique amatuñ benn kilifa diine waaw nappkat yi ak rëbbkat yi ñu ngay daje doo leen xàmme loolu tam ñu bàyyi ko xel suñ ndoloo li lu ci baax yépp nañ ko bàyyi xel te lislaam mii ñuy wax tey daf ñu fonk loo suñ bopp mais fonk sa bopp mooy fonk keneen aaye na xas nit ci lu dul dëgg aaye na rey nit ci lu dul dëgg yonent nee na ñépp buñ daje woon comploté ci rey benn bakkan ci lu dul dëgg même ku participé ci uq rek uq uqtul xam uqtul xam nga mooy reyal mais uq rek nee na ku ko def rek yàlla dugalee ñu ñu safara su leen faale deret deret ku ko munta bind rek waroo ko mun a lu mooy ci dëgg alal noonu der noonu l'ordre public noonu liñ tëral yépp pour ñun la nañ ko fonk fonkante te dollee jàng lislaam te ubbi suñu xol yi te tabax réew mi bay suuf si dugg ci usines yi te buñ fàtte mukk laa ilaha illallahu maa ngi gërëm ndaw li jógee quand même ci sëñ Mansour parce que kilifa mbootaay bi la moo ko fi yebal te ku teew ci place bi turu nit yaay moom ñu ne barab lu fay ñuul rek moo fa ne di gërëm itam daayiratul xayri wal minnati di ñaan yàlla may leen cër ci xayru ak minnatu ci ni ma ko doon utee noonu ci biir alquran di gërëm la présidente Zeynab parce que ba mu commencé wax li yàgg naa yàlla daf koy door dogal tey rek yàlla mi daje nag ñu tax nag ñu daje fi doon wax ci alquran ak sunna ak liñ jàngee ci ñu baax ñi yal nañu ko nangul ñun nangul leen ko yéen luñ ci dégg te mu jub yal na jàll def ñu jëriñu fi lu ci njuumte nañ ma ko imputé mais l'islam moom amul morom ni ma ko daan waxee toujours lu sikk ci poste récepteur bi la mais poste amul benn sikki mooy yàlla ak yonent bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان